kilifa gu mat kilifa kilifa la boo xam ne ku nekk ci sa kanam li nga ñeme moom it ñu koy ñaanal kattan ak wér ak jàpp ni ñu limee léegi kilifa yi fi teew noonu la fi bureau daayira Moukhaddamatoul Khidma yépp ñi ngi fi teew ci njiital sëriñ Afia Bousso mii doon wax léegi waaye secrétaire général mi fi sëñ Abdou Lahad sëñ Abdou Mutalib secrétaire Mokhtar euh, président commission organisation mi ngi fi sëñ Fallou Mbacké sëñ Mokhtar Kane ak euh, ki nga xam ne mooy catégorie idaar yi jiite bureau bi sëñ Abdou Lahad Afia mi ngi fi président commission sociale et relations extérieures sëñ Abdou Lahad Mam Asta mi ngi fi waa président commission communication mi ngi fi sëñ Mokhtar Kane sëñ Abdou Khadir Bousso ak ñi nga xam ne ñooy nekk ci euh, commission culturelle bi président commission culturelle mi ngi fi Abdou Lahad Bousso Thiam moo ko jiite waaye sëñ Assane Mbengue bi absent mi ngi fi président comité scientifique bi nga xam ne ñoo yor wàllu xam-xam bi ci commission bi sëñ Abdou Khadir Bousso ak ñi nga xam ne ñoo aju ci sous commission commission sociale et relations extérieures muy am su commission relation extérieure Abdou Lahad Bousso jiite ko sëñ Assane Diop nekk ci ak membre yu bëri ak mboolem ñi nga xam ne ñoo ci teew rek kilifa yi Moukhaddamatoul Khidma ca ràññe ñu ràññe leen kon su ko defee euh, ci jataay bi euh, ñi ngi sant waa Touba Côte d'Ivoire ñoom it indi nañ seen àddee ci màggal gi xëy na mënoon nañoo def sax vidéo boo xam ne dañu leen koy beral ngir bokk yi nekk yi ci yi gis ko waaye bu ñu ko jàllalee fii timit ku mel ne Sëriñ Tuubaa loo ñoom am nañu xarañ koo xam ne danañ ko mën a jàllale dagg mu ci seen groupe yi ñoom it indi nañ fi seen addiya muy addiya yi aju ci wàllu màggal ni ki noonu tamit waa Touba Guinée Conakry e, ci njiital sëñ Njaay Saaliwu ñoom it indi nañ fi seen addiya muy addiya yi aju ci màggal ak yeneen addiya yi nga xam ne jotoon nañ ko ci bi ñuy bëgg a màggal mu fi mel ne Touba Italie ak Touba Espagne ak yeneen yi ci des yëpp su ko defee bal Touba Argentine ak Touba Argentine tamit waaw su ko defee bala ñoo tàmbali kàddu yi Touba Uruguay ñoom it seen àdde yi ñëw na ci màggal euh, ñu leeral rek euh, lu mel ne lu aju ci jaayante añu jumaa ji xam nga am na ay jataay yi ñu am yoo xam ne danañu leeral lu mel ne koor ñuy def bilan général ci dafay ñëw ak bit seni fi ñu toll waaye jaayante añu jumaa ji nga xam ne sosu na ci décembre bi jàll wala novembre boobaak léegi euh, añ maanaam dépasse bu nekk di quatre-vingt mille francs Euh, di di depuis décembre deux mille vingt deux ba septembre bii di deux mille vingt trois muy quarante et un ajjuma euh, joxe nañ fi dépasse lu toll ci huit million huit cent quatre vingt dix neuf mille sept cent quatre vingt dix huit maanaam joxe nañ fi xaalis bu toll noonu huit millions huit cent quatre vingt dix neuf mille sept cent quatre vingt dix huit loolu dépassé nañ ci ci quarante et un ajjuma yi trois million cinq cent soixante mille kon des na ci keesu dépasse añu jumaa ji. cinq millions trois cent trente neuf mille sept cent quatre vingt dix huit loolu loolu loolu ma euh, soo xoolee kon dafay mel ne te loolu jotewut ak addi yi nga xam ne mooy jóge Angleterre wala mu jógee Espagne wala dara si kucc ci addi yooyu maanaam li ay jaayante la yoo xam ne dañoo wuutu Sëñ Afiya Buso mii daa joxe genn wàllu dépasse bi ak daayira bi joxe genn wàll bi ñu teggil ko nag kat ajjuma nag bàyyil ñuy joxe dépasse loolu nag jotaay bi day gudd waaye euh, mënoon nañoo lim turi turu kenn ku nekk kenn ku nekk ku joxe mel tàmbalee sëñ Baara Njaay mi ci bopp bi ba ci sëñ am satulaam mi mujj a joxe nii ci ajuma ci ajuma ji ci ajuma ji jàll ñoom ñépp seeni turam ci soo ko xoolee toll na ci téeméeri nit ak ñeent cent quatre personnes yoo xam ne ñoom ñépp kenn ku nekk jël nga benn ajuma nga xam ne at mi moom jeexoon na 52 maanaam kon léegi 104 ajjuma jël nañ ko loolu ñaar ëpp na ñaari at kon muy ñaari 52 ñaari at lay net yoo xam ne ñoo ñu verse nañ seen xaalis yoo xam ne moom dépense su ajjuma bi mat na léegi nag 104 lañ toll suñu suñu Abdou Akim Mbaye mais moom mil 1000 personnes la soxla mii junniy murit yoo xam ne kenn ku nekk da nga jël benn ajjuma ci jumaa ji loolu it nag ñu ngi ciy waxal ñu nekk ci àddina bi yëpp ak ci nekk ci jataay bi bu jël dolli waatal ku mën a dolli dolli waaye nag ñu nekk Sénégal tamit nag ah rawatina biir Touba gii ndax jël quatre-vingt mille ñu ne lu fu jël ñu ne dañ ciy togg añ boo xam ne ñi doon liggéeyal Serigne Touba di bale jumaa ji wala ñuy jubbanti sàppe yi ñoo koy añee lu ko gën a yaakaaru gisuma xaw ma ko dama dëgg loolu nag lii nag moom wax dëgg yàlla liggéey bi rafet na ki nga wene jortu ko kon loo xam ne maanaa ni ma ko waxee léegi décembre la tàmbali ba tey ci septembre bii euh, ñu ñu ñu ñu am ci cent quatre téeméeri nit ak ñeent ñoo xam ne kenn ku nekk joxe ne quatre vingt am ñoo xam ne sax cent mille la ñuy joxe waaw sëñ Abdou Lahad Muxtaar nee weer wi ci njëkk ngeen jox ko ko sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ euh, sëñ waaw nee na nee jël na aju moom waaw la weer wi ndax weeru waaw am na ci sama jël na bi ci mooy maanaam li tax mu yaakaar am na ku wax sëriñ euh, am na koo xam ne yaakaar naa sëriñ Fall joxe woon na benn àjjuma boo xam ne ba bis bu dellusee euh, yàlla dogal mu wuy ji borom mu sëñ sëñ Magumba Touré ca Italie kooku kon moo doon borom këru soxna maam Issa Allo Kafe xam nga maa ko sax baax janwaa la dëkkoon xam naa ko waaw nga xam ne kon euh, loolu rek day doon jëf joo xam ne ju yéemale kon ci laa jëm weeru gàmm weeru safar li ak weeru gàmm boo xoolee am na ci ay jàmbaar tamit ñoo xam ne jëloon nañ waaye ku mel ne si ñam satu laam ne nañ ko jox ñeenti weeri weeri ñeenti fan yi ñeenti ajjuma yi si ñëpp sama suñu soxna bu it ne nañ ko jox ñeenti ajjuma yi safar ñoom ñëpp boo dee xool dañoo mujj yaakaar naa séddale leen ko sax kii jëlee benn kii jël benn kii jël benn ah si ñëpp samat nee na moom it nañ ko jox ñeenti fan ñeenti ajjumay gàmm kon boole ci jàpp naa ne de ah man mii it damay jël benn ajjuma man mii it jël naa benn ajjuma maanaam bi topp siñ laat mu talib ma maa ci topp su ko defee kon euh, su ko defee kon mbir maa ngi noonu suñ la si ëpp laat maa say jël na benn ajjuma waaw joxe la kon daal 1000 murit lañ soxla mille murit yoo xam ne sëñ Abdou Akim Mbay yow xam nga ma xam xam nga ne mbir yi baatin dugg na ci waaw waaw mbir yi moom mille murit yoo xam ne dal balaa deux mille vingt quatre fu ñu mën a nekk ci àddina bi nag kenn ku ne jël ajjuma waaw bu ko defee loolu moom dana dana amal njariñ liggéey bi lool lool lool kon ñu ngi ci ñu ngi ciy séntu ñépp su ko defee kon bala ñoo jox Serigne Assane Sëñ Abdou Lahad Muxtaar dana ñëw ci njeexital bi ngir sant mbooloo mi waaye ñu fàttali ñu fàttali ne ah gaa yi la waaw mi ngi noonu de ngeen jàppee ne dañ leen koy bàyyee dal moom duñ leen ko mën a bàyyee noonu waaw waaw yow yow moom sëñ Abdou Hakim da nga jël kàddu ma waaw waaw ci bokkul la jàll sëñ Abdou Hakim Mbaye nee yi jël na ci ñett moom ci boppam jëlal na baayam jëlal yaayam te jotewut ak dara nag ajjuma yi mu jëloon ci ginnaaw loolu moom yéen ñii ñëpp moom kenn ku nekk sëñ Baara Ndiaye ak sëñ ñooñu liñ jël ci àjjuma kenn xamul kañ la waxoon nañ moom jël nañ àjjuma yu bëri ñoom wax dëgg yàlla ñu jël seeni doom seeni seeni seeni jarbaat su ko defee kon liggéey bi mi ngi noonu rek su a affaire dafa wax dafa ubbi wax yu am solo loo xam ne lu lu lu lu yéeme la loo xam ne doy na sëkk mbokk yi ñu fàttali ne jumaa ji liggéey da koo gën te yaakaar ndax euh, dafa sax. te sëriñ bi diine ko taxoon a jóg te daayira Muxaddamatul Xidma am na lu man lu baree bëri loo xam ne àgg gu ca waaye moyens yi war a am da koo amagul dëgg-dëgg te moyens yi su ko amee dana fa àgg te dana mën a liggéeyal sëriñ bi lu raw li ñuy gis loolu ñun xam nañ ko bu wóor a wóor ba tax na li nga xam ne mooy keesan li ñu suñ Muntaxa waxoon maanaam fi ñu yéene fa fa jëm mooy képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci jumaa ji di fi nekk di ñëw di jëmmalal sëriñ bi li nga xam ne moo ko tax a jóg moo ko taxoon a jóg muy diine ñu am luñ la gàddul tawul la ko ci sa kër kon niñ niñ niñ nangoo añ bi nii dépasse bi nii foofu la suñu yéene jëm te yaakaar naa dinañ fa àgg incha allah su ko defee kon xam ngeen ne daayira Muxaddamatul Xidma jàmbatoon na ndox ci bàq ya ma ngay saafaraw forage baa nga nee di bënn ci jotaay bii kon su ko defee loolu bëgg nañ benn oto ndox boo xam ne da ciy topp oto ndox boo xam ne day bi da koy moom di duyee bàq ya di indil ñiy bale si ak di nettoyer si jumaa ji ndax xam nga ne bis bu nekk am na lu ma ñett téeméer wala ñeenti téeméer yoo xam ne dañuy xëy ci jumaa ji di ko setal te dañuy am ay bërigo yoo xam ne day wër penc bi te pression bi wër jumaa ji doyut kon li li koy saafara mooy ñu benn oto ndox boo xam ne day ñëw di duy bërigo yi loolu kon yitte la yoo xam ne ñu ngi koy wax waa Sénégal di ko wax waa diaspora ak jëwriñ yi fi teew ñu xam ne yittal daayira Muxaddamatul Xidma soxla na oto mbalit boo xam ne euh, dafay nekk ci responsabilité daayira bi ngir mbalit mi nga xam ne mooy génn ci penc mi ak biir jumaa ji ñu di ko mën a jël di ko tuuri di ko yóbbu fa ñuy fa ñuy fa ñuy tuuree ndax xëy na UCC mi ngi fi mais mënul bët bu set muy ñëw di jël di jël mbalit la joo xam ne soxla nañ soxla nañ tamit benn oto boo xam ne yéen ñi nekk Europe xam ngeen ko oto yi nga xam ne day bale PSA yu mag yi maanaam maanaam maanaam mbedd yu mag yi nga xam ne karo bu ñagas bii ci penc ni nga suuf si day dugg ci biir euh, pawaas yi loolu soxla nañ oto bu mag camion bu mag boo xam ne lii liggéey mooy su guddee mu am chauffeur ku mel ne Moustapha Mbeng ngi yéeg ci wër penc mépp ko moom ci diir bu gàtt bu mu daal di mu loolu yitte la joo xam ne soxla nañ daayira Moukhaddamatoul Khidma soxla na ambulance boo xam ne jumaa ji moo koy moom xam ngeen ne am na centre de santé bu mucc ayib boo xam ne rek ji dañ koo yokk lool sëñ Mouhamadul Mountakha def ci liggéey bu am solo am daayira bu mu ko sant ñu def ci daanaka lu tolloo 40 millions 44 millions million ko muy benn fajukaay boo xam ne ñu ngi ci biir jumaa ji nga xam ne ajjuma ji jot dañuy ñëw di faj kon soxla nañu ambulance boo xam ne day taxaw fii ajjuma ña fay faj bu ñu gisee lu leen lu leen jaaxal mu mën koo jël yóbbu nga xam ne doo doo nekk di woote di ambulance di xaar loolu it yitte la joo xam ne soxla nañ euh, xam ngeen ne tamit bokk na ci suñuy procès képp ko xam ne ñëw nga ci dëkk bi moo xam dangaa dugg ci lislaam moo xam da ngaa jaaxle wala nga dawee foo foo jóg ngir yaakaar Touba soo ñëwee ci jumaa ji ngay jubal si te su ñëwee daayira Moukhaddamatoul ma ñoo leen di recevoir am nañ ci cas yu bëree bëree bëree bëri kon nag jaadu na ñu am genn kër goo xam ne kër social lay doon xam ne ñi nga xam ne dañoo dugg ci lislaam tey tumuranke amul fu ñu leen fat kër googu di leen recevoir di leen dalal ñi nga xam ne ay doxandeem lañ ñu ko siñeb daa defee di fat doxandeem yi nga xam ne léeg-léeg dañuy ñëw doon ay gan te xam ne ñi nit ñu yiw te amuñ fuñ dugg ñu man di leen dalal foofu loolu tamit kër googu daayira jëndoon na ay terrain am nañuy terrain wax daan am ko Daaru Xadim loolu tamit ci ay procès la yoo xam ne mun a ñàkk ñu am kër bu baax boo xam ne day dalal ñu mel noonu muy këru social boo xam ne li koy tax mooy dalal ñi nga xam ne dañoo ñëw dugg ci diine te tumuraanke te war leen a dalal jàngal leen yar leen te Sëriñ Tuubaa dong yëkkati leen te ñooñu buñ jaaxlee ci jumaa ji rek dañuy wut si te buñ ñëwee dañuy gis ñu tëdd ci penc mi dangay gis ñu bëri tëdd ci penc mi ak yu te ñooñu ñëpp am na ñoo xam ne ay nit ñu yiw lañ te amul fenn fu leen di fal te jàpp nañ ne ñun ñu nekk ci jumaa ji kat ñoo leen war a wutal loolu tamit projet la boo xam ne terrain yaa ngi te defaraguñ mi ngi fi ni ki noonu tamit war naa am benn magasin bu mag boo xam ne war nañ koo def ngir matériel yi nga xam ne moom la ñuy wekkee ci jumaa ji yu ni demee muy yi yi yàq yi ñu sensé xajul ci jumaa ji te loolu war nañ am benn magasin boo xam ne dañ fay dañ koy dañ ko fay denc dajale dajale ko fa li ko fa denc loolu yi am nañ terrain bu mu a bu mu mën a dem xam nga ne tamit day Moukhaddamatoul ma day former ndax Sëñ Tuubaa moom moom mooy borom moom moom ku jàdd li ko suñ li ko suñ fàllu doon wax xam ne ko jaddadal diina fa ka annahu qad banaw da nga yeesal diine ba mel na yaay borom diine kon liñ gën ñun mooy boroom diine kon formation yi ñu def ci jàkka yi ak jumaa yi di ko defal dëkk bi jàpp nañ ne dañ ko war a defal Sénégal gépp moo tax daayira Moukhaddamatoul Khidma am na ay terrain yu ñu jëndoon ngir tabax benn markas benn centre formation boo xam ne képp koo xam ne am nga jumaa wala nga am jàkka foo mën a nekk ci àddina bi dañ la fay yóbbu former la jàngal la nu ñuy jiitee nu ñuy xutba nu ñuy nu ñuy noddee nu ñuy liqaame loolu tamit procès la boo xam ne mi ngi fi am nañ plan yeeg yëpp te defaraguñ ko kon daal mébét yi mi ngi ci kanam te yooyu yëpp su amee dana doon loo xam ne njariñul dëkk bi lay doon te fii occasion la ni ma ko waxee léegi day jataay bu barkeel boo xam ne euh, li ñu fi tuddoon daaw léegi ma koy leeral muy jaayante añu jumaa ji ak fo ak ñàkk ndoxu bàq ya ñaar yooyu moom saafarawu machine yi nga xam ne mooy mooy mooy bale tapis yi duñ ko fi jàmbatee saafarawul kon yii ñi nga xam ne tudd naa ko léegi muy oto mbalit bi oto ndox ambulance ak kër social ak centre formation bi nga xam ne war nañ koo def ngir képp ko xam ne dañ lay former ci jàkka yi jumaa yi man lañ fay dajale di leen former loolu moom mooy yitte yi nga xam ne mi ngi ci suñ kanam te jàpp nañ ne xajut ci bu duggee ci noppi murid yi xajut ci xajut ci xajut soxla su soxla si gaaw a kon su ko defee yooyu lañ ne bala ñoo tàmbali kàddu yi danañ ko yëkkati leeral leen ko euh, ngeen xam ko bu baax a baax loolu nag ak liggéey yi nga xam ne moom dafa sax di continuer muy entretien bi matériel bi ñu soxla ci entretien bi bala yeeg sar yeer yeeg euh, yi ñu nettoyé ñoo bëgg a jël ab liggéey ngir liggéeyal ko Sëriñ Tuubaa ci jumaa ji wala muy liggéey bu mag boo xam ne danañ ko liggéey fii ci jumaa ji loolu moo tax kon yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne yéen jëwri ni ngeen dégg koy bépp fédération boo xam ne am na liggéey boo bëgg jël ci yooyu mi ngi fi doon yu amal njariñ dëkk bi doon yu amal njariñ jumaa ji loolu loo xam ne lépp ne ambulance bi tàmbali nañ ko 400 pounds dajee na fi yu bàyyi ko Angleterre ci ñoom sëñ Abdou waaw kon ambulance bi ñu wax léegi ne dañ koy jagleel jumaa ji kat waa Angleterre ñoom tàmbali nañ ci 400 pounds yoo xam ne 400 pounds yoo xam ne tàmbali na ci ngir jëm ci ambulance bi kon li may wax ci yitte yaa ngi noonu moom daal murid yi daal xam naa ne suñ tubaab rek euh, nañu ami milliard rek waaw waaw su ko defee tamit mënuñoo ñàkk a beral cant waa fondation Muqaddimatul Xidma bu Amérique ma si ñam sa tulaam waroon naa teew may teewul ñoom tamit dafa am jàppale bu am am solo boo xam ne dañ koy jàppale Muqaddimatul Xidma 2019 euh, la sosu 2019 dañ fa demoon maag sëñ Assane mii ñu ñu sos lu jiitu loolu xëy na sëñ am satulaam sëñ soxna njaxat daanañ ci participer waaye dawul deme noonu mais fondation boobu nag kon dafay leeral képp kuy seetaan te nekk Amérique nga xam ne Moukhaddamatoul Khidma am na ko fondation bu fa nekk boo xam ne nit ñaa ngi cay adhéré wu di ci participer di ko jaarale ci plateforme yi muy www touba mosquée point org nga xam ne da ngay da ngay joxe sa carte directement ñu lay dagg par weer moo xam 10 dollars ngay joxe moo xam ñu tëral ko ci ñetti parti ñii di participer ci maintenance ñii bàq ya ñii màggal ak gàmm waaye mille depuis 2019 ba ren jii nii ci màggal gi amul at mu dul dugal lu lu lu lu mat 10 millions yu topp 10 millions ak dara ci keesu Moukhaddamatoul Khidma nga xam ne daanaka bëri na yu ñuy yu ñuy jariñoo ci at mi yoo xam ne ci lañ koy réparé loolu Sëriñ Abdou Lahad bi mën na koo seet loolu soo ko xoolee kon bi mu sosoon léegi dugal nañ lu mat cinquante million ci keesu Moukhaddamatoul Khidma loolu tamit day liggéey bu rëy rëy boo xam ne mu ne su ko ñàkk a seere ci ndajam diaspora muy waa Amérique ci njiital Sëriñ Seex Jonn Sëriñ Amsatu Lam soxna may mun Maymuna Caam soxna Maam jaaro Fay muy liggéey boo xam ne bu rëy rëy la boo xam ne daanaka euh, seen buru sax doo leen doo leen gis sax ci dara waaye teewul njariñ lu rëy lañ amal Moukhaddamatoul loolu it ñu ngi leen ci sant bu baax di leen gërëm kon su ko defee dañuy wéyal kàddu yi kon joxe kàddu yi suñu asan yow la jox nga ubbi euh, jëkk jël kàddu xam naa ne ci ci ci turu Espagne moom euh, jëwriñ suñu aadi moo ci jël kàddu wala wala suñu fàllu jar xam naa danga ma jox pour kuy jël kàddu ci seen tur waaye yow daal sa kàddu bopp mooy nga ubbi ci ak tënk ngir dalal euh, sa mbokki jëwriñ yi su ko defee bu noppee ñu daa mel ne ubbi nga lépp rek liñ ci waroon ko wax nga ko ak sëñ Afia euh, waaw gannaaw nuyoo boobu daal nga xam ne sëñ Afia Bousso yëkkati na ko man ci foofu lay ñëw ndax jataay bi li ko sabab mooy cant ak ngërëm loo xam ne jëwriñ seede na ko léegi muy sëñ Afia te te ni mu ko seedee nag loolu rek la ab murit di wër mooy sa jëwriñ seedeel la sag murit ba noppi ne jataay bu nii ñëpp di ay murit nee na moom tey am na ko sa yaatu leer leer na loolu fii ba noppi mu nekk jëwriñu liggéey bi euh, jëwriñu liggéey bi seede suñ jëf ndax nee na yéen seen jëf seede naa ko kon nag jëf jooju sëñ Tuubaa gërëm na ko seede na taxawaay yi ci jàpp gi ñuy jàpp ci liggéey bi mu luy aju ci matériel bi li aju ci maanaam entretien bi li aju ci li jëm ci waa jumaa ji loolu lépp sëñ yi seede na ko mu dal xel lool nag ndaxte kat bokk ci mbooloo mi euh, moom mas naa dégg ci ay kàddoom tey jii ki fi nekk di seex di seexul xadim mu Cheikh Modou mu ne ko Afia nee neema bokk nee ma bokk nga ci daayira bi sëñ Afia ne ko sëñ Afia ne ko yow yaay yaay yaay ki ci bopp bi tey jii nag moom mu seedeel nu nag na yéen ñii yéenay mbooloo mi xam ne yéen ah, li mbooloo mi bari bari bari bari di liggéey am na mbooloo moo xam ne gisuñ leen sax ci seen taxawaay waaye jëf yi buñ ko doon seet tey ñoo yéen ñii la ñuy jiital kon nag loolu rek lañ ci doon wax di di jaajëfal daal di jaajëfal mbooleem continent yépp nga xam ne mooy Amérique ak Europe ak Afrique ak Asie ah, seen jëf yi nga xam ne jëfal ngeen ko Seexul Xaddim ndax daayira bi moom seen xel dal na lool sëñ Afe moo koy wax sëñ Afe day wax ne euh, bépp yitte bu fi ñëw sunu yaakaar da ciy dolliku ndax taxawaay waa bitim réew ba lépp luñ ci yëg rek loola moom dañ koy daal di amee ni ko bëggee comme sama jëwriñ a ngi nii toog muy sëñ Adi Touré euh, di jëwriñu ki fi teewal fédération Espagne euh, ak sëñ maam Daamloo mi coordonnateur général xanaa dalal sama gan yi nga xam ne fekkoon nañu bindi liste bi rek muy waa fédération Ouest bu France muy sëñ euh, Sidi Diop mi nga xam ni ñëw na ak sëñ Cheikh Diouf ndax renkat ku xool xam ne France mën naa ne liggéey ba fa jógee bépp fédération Ouest ñoo ko liggéey liggéey nañ fa daanaka lu toll ci 600000 CFA waaw yóbbante nañ fi 200000 ak 600 euros yoo xam ne ci daayira la Roussillon la bàyyi ko sëñ Sidi Diop mii nekk fa ñu teewal fi sëñ Maodo Lamine Amar ñu nekkoon fa noonu itam ànd ak ñoom ci daayira ba di xëy ci marché ya di gontu waxtu wu ci nekk seeni benn seeni ñaar di daje ba tollu foofu kon sëñ Sidi ñoo ngi leen di siyaare di leen dalal xam naa dañuy gàttal kàddu yi rek ndax kom waxtu wi e, kii na e, liñ fi doon wax lépp daal ci yittey daayira bi daayira bi xam na ne waa diaspora luñ ci yëg mu mu luñ ci yëg mu sotti ndax daje bii daaw sëñ Abdou leeral na ko ci lañ waxoon yittey forage bi muy Baxiya loolee tey jii léegi mu bënn ma ngay bëgg a sori ñuy waxaat fi yitte yu jëm ci añi jumaa ji loola tey jii bi fi ñoom sëñ Fallou Diop jógee dem Angleterre fekk fa ñoom sëñ Abdou ki mbay loola daat na yéwén ba tey jii sóobuwaat nañ ci fexe am junni murit junni taalibe yu jaayante ak Seexul Xadim nga xam ne tey jii dañuy wax ne lii moom dañ koy garanté vingt ans waaw yoo xam ne loolu moom day féete bor ñu waxaat fi far euh, yitte yi muy camion bi wax fi yitte yi nga xam ne mooy maanaam mooy mooy ambulance bi bi ñuy daaneel rek la ma kenn dee ci waa Angleterre na ma sañu asan kat quatre cent pounds na ngi nii ma ne ko loolu kon léegi loolu mooy tàmbalik liggéey bu ñu delloo Angleterre yaatal ko mu jëm ci diaspora yépp nag biir réew bitim réew euh, kon loolu rek maanaam moo nu war a xamal ne li sañu waxoon rek fii moom ku fi diir da nga jamt ku fi dàkk jam nga kon nag yàlla nañ ci daje ngërëmal sëñ Touba. xanaa di jaajëfal nag soxna yi ma tëje ko soxna soxnay diaspora ndax soxnay diaspora bi sëñ Ablaat leeral na ko yenn ci soxna yi ñoo gisoon na kat am na ay soxna yoo xam ne boromi Pastef lañu yoo xam ne waxtu wun xëyee xëyal sañ tubaa ci jumaa ji di ko setal bu koor ñëwee ñuy jëw di raxas kaas yi ak di di jàpp ci bisaab yeeg yi ñuy def yépp ñoom nag ñu xam ne bu ñu nekkoon fii ci réew mi tam loolu dañ koy xëyal sëñ di ko fi gontal ñu gis na nag kon léegi loolu comme comme yàlla dogal na ña nga ca tool ba kon nag soxna yi nañ fexe ba ñoom itam ñuy jaayante seenu ñaq muy ñëw ba ko ba loolu ko déggee rek la waa daayira Muxaddamaat Xidma daal di rafetlu xalaat bi ba ubbi groupe boo xam ne tey jii soxna yi tàmbali nañ ci dugg waa Amérique ak waa Italie waa Espagne soxna jaara nag moom ñoom biñ ko déggee rek ñoo jiitu ci xalaat bi daan nañuy dajale un million soxna Dieng ngi noonu di tàggoo euh, ak soxna faatu géey teewaloon fii fédération maam jaara bi soxna maam naar kan ko ak euh, secretaire général soxna Aïda Gueye ba Amérique soxna Amé Gumba la ñoom ña nga faak soxna soxna soxna Mariama ñi nekk Italie bu ñu limee sax du mat waaye daal ñi ngi xam leen ne daal liggéey bi euh, waaw ñu ñu xam ne daal liggéey bi maanaam mi ngi noonu daal kon ñu jàpp rek mu gën a jolli jëm ci kanam kon sëñ Abdou xam naa ñu gàttal kàddu yi su ko defee comme euh, waa réew yaa ngi fi te kenn ku ci nekk am na yéen ay jooyal cantam ak ngërëm kon laa ñu joxewaat kàddu gi rek incha allah. kon su ko defee ñi ngi jàll ci kàddu yi di jox waa Angleterre kon sëñ Fallou Diop sëñ Abdou Akim Mbaye sëñ Talla Kébé sëñ Baara Ndiaye. Euh, xam naa ñi nga xam ne ñooy jël kàddu ci turu waa Angleterre gépp jëlaale kàddu it ci turu jaayante añu jumaa ji mën naa muy ñaari kàddu ndax kat yéen moom yéenay jëwri ni jaayante añu jumaa ji kon sëñ Fallou kon ki jël kàddu mën naa jege si wa bismillah bismillah inna waliyallah wajal kalaami raasilan wa mursila wa fikrati nawiru xalbi arsida barke borom Tuubaa salaamaaleykum wa rahmatullah bokki julli bokki taalibe yi bokki àdduna noo ngi leen di nuyu leen ziar di tàmbalee nag ci sunuy kàddu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Sëñ Tuubaa Xaadimu di ñaanal Seex Moodu Muntaxa mu gën fee yàgg lool te gën a wér kasaalika noonu lañ koy ñaanale sëñ Amdi Fall xalifa Baye Fall ak mboolem kilifa diine yi waaye ci samay kàddu rek li may jëkk a tàmbalee mooy sant yàlla bu baax waaye cant gi itam dañ ciy jiital ñii nga xam ne ñoom la yàlla dogal ñi ngànk liggéeyu daayiratu xet ma sëñ Xaafiya ci ca bobba ndax Cheikh Abdoul Ahad da daan wax ne bu la nit defalee lu baax nga sant ko lu war la waaye nga wax ko ba ñëpp déggu nag as goro koy def te nun dañoo fa yéene gore di ci tàmbali rek Euh, sama sëriñu bopp yi mooy ku tudd Abdou Lahad te na ci xidma bi rek yaa ngi ci biir ndax man yéenay samay sëriñ nag euh, di ci teg sëñ sëñ sëñ jiili ñu ngi koy nuyu lu bari lool euh, sëñ Abdou Lahad Afe ñu ngi koy sant bu baax moom itam ci liggéey bu sell bi muy def ci liggéey bi. bi yàlla dogalee daaw ñu ñëw fii dégg fi ay jàmbat man damaa yëg ci sama bopp ne su ma des gor wala ma dem jullit wala li may wax sëñ Tuubaa di dëgg. lii danaa ci dox te Cheikh Abdullah daa waxoon ne liggéeyal sëñ moom nee na kenn du ci dara mi ngi ci nga fasoo ko rek tam sell soo ko fasoo tam mu sell rek boo yëkkati sëñ Tuubaa di la dimbali. bi yàlla dogalee itam loola waxuma ko woon nag waaye da ndax am na kàddu yoo xam ne waroo ko jib ci mbooloo ndax gannaaw mënoo ko yow dongul mbooloo nga ci yaakaar danga koy téeg sa biir xol ma téeg ko ci sama xol bi ma delloo Angleterre yàlla dogal waxtaan ak sëñ Abdou ak mbay mais ak Baye Baara Ndiaye Baye Fall. ak sëñ Talla Kébé yàlla xam na ak sëñ Tuubaa ba mu leen ko wax dafa mel ne ñoom ñooma ma ko gën dafa mel ne ñoom ñoo ko déggoon téye ko bëgg ku ko waxe te ñi waxal leen ko ñi dal ci sóobu ci saase ñu ne nag léegi bañ koy wax it 52 rek lañ bëggoon ajjuma muy at mi su jeexee 52 personnes yi joxe ko ñi tàmbaliwaat te loolu dañoo fas yéene giirug dund bay Baye Bala Ndiaye Baye Fall day wax ne suñu giirug dund lay doon kenn ku ne na nga waajal sa bopp bàyyi sa njaboot. bis booy fi jógee yàlla na yeex booy dénkaane na nga leen dénk loolu ñu wéyal ko loolu lañ fas yéene ndax jumaa ji daa war a wéy bi loolu amee nag ñu soobu ci muy quatre-vingt mille par àjjuma bi yàlla ak sëñ Tuubaa dogalee ñu dugg ci dox ci tuuti lañ doon xalaat tàmbali ko ci novembre bi nga xam ne ci janvier bi lañ waroon tàmbali jëkk muy àjjuma jëkk muy jëkk ci janvier bi 2023 waaye sëñ Tuubaa gàttal ñu ak xéewal ma xalaat ne nag gannaaw yàlla dogal na noonu dañoo bëggoon 52 ajuma waaye li jot a bindu dal na suñu xel kon léegi dootul nag dootu doon ngor nag ñuy denc xaalis bi fii di xaar saa bi jot nga xamul lu yàlla def ñu daal koy tàmbali. Baye Baara Ndiaye baay Fall mais daan ne ma sëñ Fallou loolu maa ciy jëkk a joxe léegi fii ba janvier dañ koy jaayante muy moom mais sëñ Abdou Akim mbay man ak sëñ Assane Diop mii ñu jaayantu ko ba janvier bi dugg ñu ko tàmbali liggéey ba kon loolu loolu dañ leen koy leeral rek leeral gi dafa munta ñàkk di sant bu baax a baax itam ñi nga xam ne bi ñu wootee wuy si nañ ak wuy si boo xam ne kawe na yaakaar sëñ Adi Touré mii ñu ngi koy sant di ko gërëm ndax borom borom pëstéef la jàmbaar la te moom ma jiitu ci liggéeyu xet ma bi nag ndax nit ki nag day nangul yàlla doog a loolu nangu naa ko di ko sant bu baax sëñ Fallou Diame itam nekk Espagne kasaalika na ko noonu sëñ Touba Lo joxe kàddoom sëñ Dame Gueye ci Amérique sëñ Dame nag moom da cee boole bis maa koy woo mu ne ci biir métro ci Amérique di jooy jooy métti nan sëñ Fallou dimbali leen ma rek ma bokk ci bi mu joxee ñaari ajjuma la joxe ba noppi ciin yi nga xam ne moom la ñuy toggee xéewal yi mu ne ciin ciini añu jumaa yi moom dana ëpp ñaar fukki kilo cinu fanweeri kilo la woon mu commande ñaari cin sëñ Tuubaa mii moo ko indi kon ñu ngi koy seedeel bokki taal bi yëpp nag di leen wax ne nag liggéey bi bu ngeen gisee dooluñ ci dara lépp sëñ Tuubaa man damay toog ba yàgg ma xalaat ne ndax nun taalibey sëñ Tuubaa xam nañ sëñ bi nan lañ koy war a liggéeye wa illaa dañ koo xam noppi wala dañ koo xam te suñ bopp wala dañ koo xam bañ koo def li ñu war mooy góor yii toog di sang mooy mooy sang si sant Bousso nga xam ne fa sëñ tubaa defaree maam yi ñëpp fa la seeni maam defar na seeni i bàyyi defar leen fa ñoom ñi bàyyi seen léppi àdduna jublu sëñ tubaa duñ dem ndakaaru sax amuñu jot ku ci génn da ngay profitoo dellu siwaat fi ci dëkk bi te moo ñoom ñii kuñ kuñ na ci woon tey ci jataay bi ñoo la a gën sëñ Tuubaa da nga da nga ñoom ñoom ñu bàyyi seen lépp jox sëñ Tuubaa kon day ngor ci ñun taalibee sëñ tubaa yi ñu jaayanteeg sëñ tubaa gis ngeen xaalis du dara ay kay jumtuwaay la rek ñu fexe ba kenn ku nekk ñun nag jaayante bii ñuy woote muy añi jumaa ji sëñ Abdou Akim Mbaye wax na ko sëñ Baara Ndiaye Baye Fall dana ci ñëw mooy lan junniy jëf nag lañ so bu ñu ne junniy murid rek waxuñu ku ne riir bindu déedéet yi jëf lañ soxla murid bu bindu na nga na nga joxe sa jëf ndax bindu rek bokk ci mbooloo mi ñi la ciy boole te jëfoo ndax ak taalibe lu ñu ci wax boo ne jébalu naa dégg nañ ko waaye boo ko jëfee tee nañ ko kon nag añ bii itam loolu lañ ci wootee woote ci dara nag ngir adduna ngir puukaree wala tur wala daraja wala dara xit ma rek sëñ Touba rek lañ koy liggéeyal kon maa ngi soññ képp ku yaakaar sëñ tubaa te di ma dégg ak foo may mën a déggee nga fexe ba joxe benn quatre-vingt mille francs CFA ndax am na bokk yu baax yu wax léegi ne euh, nañ nañ nañ euh, nañ jël cent bi nanga ba waaye nag deux mille vingt cinq ngeen jëm de waaw waaw waaw fa ngeen jëm 2024 moom jeex na 2023 jeex na 2024 jeex na 2025 ngeen jëm tey lii dañoo fas yéene ñun ñu doon joxe itam fi mu ne assuré nañ sëñ Abdou Lahad 52 yoo ajjuma yoo xam ne nii ca Angleterre ak mu ne dañ koy répété waat dañ koy joxe ndax man joxe naa samay doom samay samay soxna ñëpp ngi ci biir xeet ma fi mu ne nii loolu nag lañ bëgg mu wéy junniy taalibe yi nag baay Bara Ndiaye sañ naa laa joxum xel waaye sañu ma laa dégg sama kilifa nga waaye bu ñu delloo Angleterre na kenn ku ne ci ñu nekk Ankara fexe dugal ñaar fukki taalibe ndax junni yi dañoo ndax junni yi su matee mille personnes yi quatre-vingt-deux millions lay doon su boobaa añu jumaa ji duñ ko tënk ci àjjuma rek bis bu set la togg añ waaw ndax te loolu lu war a mën a nekk la kon li ci des nag mooy sant yàlla bu baax julli ci yonent bi sant Serigne Touba di ñaanal sëñ Afia ndax sama xel daa dal li tax sama xel dal mooy Serigne Afia daa wax fi ne ay murid ngeen te ay saadax ngeen ko ni mu ko lu ma déggee ci gémmiñu Cheikh Mourou Mountakha ndax ba ma ko xamee ba nëgë ni di tuut tànk ne ci dëkk bii ci lu baax rek laa ko xam sax dakk ci liggéeyal sëñ Touba kon nag jëmm ju mel noonu te wóor na ma ne sorewul ak sëriñ bi waaw sëñ Afia sorewul ak sëñ tubaa de ndax añ bii biñ koy sos sëñ bi ak mbay mi wax ko ñu jox sëñ Abdou Lahad mi mu ñaanal ñu baatin da cee feeñ baatin bi ci feeñaat fee génnul mbooloo mi am na soxna suñu wax soxna Awa Diop nag ca Écosse Scotland moom jël na ñeenti àjjuma wax moom moom joxe na benn am nee na ñetti doomam kenn ku ne dana ko joxeel kon bokk yi dafay mel ne giiroo la rek waaye nag mbooloo mi ne fii itam képp ku ci mën a bindu na nga ne bind leen ma ñu bind sa tur bind sa numéro téléphone dugal la ci mbooloo mi te nga xam ne sëñ Tuubaa nga jaayanteel boo bindoo rek da ngay jëf ndax sëñ Makumba Touré sëñ Abdou laal ñu koy fàttali ko yàlla na yàlla yokk ay xéwalam moom bi muy bindu ku ñu wax Njaga jaay Njuga Njaay ca Italie ca Angleterre moo ma woo ne ma sama benn na la woo ko mu ne ma sëñ bind ma ca saas mu joxe jëfam yàlla xam na ne dem na barsàq te bis bis bi nga xam ne ci la war a togg bu ñëwee te sax jëfal tàmbali na dana xam ne sëñ Tuubaa rek a jëre jëfal kuy daagu ci kaw suuf nag seen sëriñ seen sëriñ tur doo waxoon ak Cheikh Abdou Lahad ku la neex mën naa doon sam sàgg na moom waaye nee na bu dee bu ñu teg ci ak jaab jëmale bar sàq ku ko ne am nga sang bu dul sëriñ bi su mën a jóg du jël yat jaasi la jël dal sa kaw ëllëg moom sëñ Tuubaa rek lañ fa yaakaar waaye lay tax nag suñu suñu gëm sëñ Tuubaa ak su ñu wax ji di dëgg ci ñun nañuy jëf bokkee waxe kes rek taxawul jumaa ji waaw jumaa ji waxi kese dong taxawal jëf moo ko taxawal lu fi taxaw ci yoon lu jëf ko taxawal kon yàlla ñu yàlla tabal ci barke wàq di hawa ijëli si na daamoo fii xidmati wa hablahum maaramoo barke Cheikh Abdoul Ahad kon sëñ Bara bismillah kaddu yi am na solo lool te posté macha allah. atum baax a baax luy ñaan mu yàgg fi loolu te wér ndax yàggal fi suñu njëriñ la ndax ku ne xam ne gis nañ téye yoonu Serigne Touba bi toogee na ñu si Cheikh Saliou jógee ñëpp tiit waaye ba laaj baa toogee tu bi Cheikh Modou Makhtar toog xel yëpp dal xel yooyu ni mu doon dalee ñun tax taxaw ñëwee rek xel yooyu daa gën a dal baax a baax a baax kon nag gën a santaat Serigne Touba sëñ bi ginnaaw moom moo yor defar wa jal bi ñoo dégg jën si tubaab weer te ku toog jëm ni sëñ bi ngay toogee nan xam sëñ bi mu ngi suñu biir dañ ko bàyyi ba xel bu baax a baax di nuyu si asi busa ak ay rakkam ak i doomam jërbaatam ñëppam rek ak njaboot gi ma àndal ci liggéey bi sëñ Tuubaa bii noonu nag du war a wax sëñ Fall sànq dama ko doon santat sëñ Tuubaa sant yàlla baax baax ndax ku yàlla baaxee sëñ am sabat moom sa sayo bëkk bi noo nga fa woon nee da ngeen war a sant sëñ Tuubaa baax na sëñ Tuubaa lépp lay liggéey loolu rawat na jumaay dugg jumaay sëñ Tuubaa kon nan xam ne leen am bu naaw sëñ Tuubaa nangu na ko suñu alal ji sant sëñ Tuubaa baax a baax bi suñu alal duggee jëm liggéey jumaa ji kon nan sant sëñ Tuubaa yoon wi nag daa nangu accompagnement ak jëmale feret rek la nangu feret la de feret dong la nangu nan feret feret mooy nit ñam nan ko jox sëñ Tuubaa sëñ bee ko moom sëñ bi moo tukki ñibbi si indi sëriñ leen am lépp lan xam ne suñu coon baaxee ci baaxam bu doonam sëñ bi nooy raw jaaykatuñ ngooñ wala doon raw waa Guinée Guinée Conakry Guinée yeneen dëkk yi nga xam ne mel ni ko mel ni amuñ ko am ku mel ni ko am sëñ kon nan góorgóorluwaat fasuwaat xam ne ku suñ coon bëgg dimbale ba teg la ci yoon te xam ne yaa ngi ko yoon kon nan sant Sëriñ Tuubaa te góorgóorlu ci lii munu teg te bool nañu te na wërsëg damay wax ne diaspora bi wóoruma it senegal ne waaye diaspora bi ku fi nekk quatorze mille francs ji defewu la kon góor góorgóorlu soññuwaat teel bi ñun ñi nga xam yàlla noo baaxee na ñu soññee ni ngi Touba Ca Kanam defee rek laaj duñu man def ko xam li ñuy laajte ñoo ngi leen koy laaj te xam def na ñoo ngi leen koy laaj di ko joxee de waaye xam nañ ko mooy jumaa ji suñu Touba ji kon nu xam ne Sëriñ Touba am lu ñu koy jëfal saa su ne rek saa waaju baax jana Cheikh Rafal Baye mu dina dawal xaar señ bi daal di addiyee denc jël yóbbu addiya bàyyi fi dara ñu ne Fall lu tax mu ne ah suñu Bàmba damay bañ mu juyoo ak addi yi juyoo mu laaj leen dina ñëw mais suñu bi laaj ko amul day bañ kon daan ma dégg sëñ Abdou Karim Mbacke mu xam ne mu ne koo seen mu mu ko am mbur saadeex nga dem ci moom gisoo fa jikkoy Cheikh melaw Cheikh du saadeex kon nan doon Cheikh Fall li naan nañ ko jox suñu Bàmba Cheikh Fall dawul tey dara Cheikh Amadou Bachir mi nga xam ne moo jur Cheikh Amadou Mountakha mii daaw woo daaw ñëw ci Cheikh Fall ni ko damaa jaaxal lool Fall mu ne ko abasir loo jaaxal mu ne ko ah, sa xiwal yi bari lool te ba nga jébul ca Mbàkke Kajoor de da ngaa ko yoma xam boo yoma ma gis dara cee xéwal ma ngi xiwal yi bari lool fi yow lool mu ne ko wax nga dëgg basir waaye ma jébbuloo sa wóom yi dafa taxoon ci suuf boo ko faxasee sama njaboot samay taali bi ñëw samay soppe ci lañ jëlee bari tukki waaye sama na bi ko suñu Bàmba duyee yoma xam laa koy bi ñëpp jëriñu kon nan roy Cheikh Fall roy ko ci joxe roy ko mën a joxe li si affaire léegi lu am solo nan yàlla buñ gis suñu bopp ci liggéey bi yàlla buñ gis suñu bopp junni murid yi nag nan ci jàpp ñun ñëpp kenn ko fa nekk boo delloo na nga fexe su ma waxee man de dama fukki nit si sama ñaar fukk fukk laa ne boo delloo Angleterre naa dugal fukk insa rabbi sama juróom benn dooma nga fa ak sama soxna ñun juróom ñett fay kon ñaar laay doon ñëpp laay bokk seen seen noo ngi sant suñu Tuubaa baax baax baax a baax a baax doon di gërëm baax a baax a baax a baax barki Sénégal jërëjëf wasalaam. ngi leen di yóbbante nuyoo ci sëriñ Ablaye Dieng Fawcet yi te di ko ñaanal ak wér di ko ñaanal ak wér ak gudd fan moom it jëwrin ju mat jëwrin la wax dëgg yàlla ku jàmbaare la euh, sëñ Abdoulaye gis nga waa Londres Angleterre xam nga dëkk la boo xam ne man dama koy wax toujours su ma fa demee ne dëkk yooyu nga xam ne dañ leen di roy ci wàllu avancement ci wàllu technologie nga xam ne daanaka ci ñuy wombat àddina bi ci ci doxin wi lañ bokk ñoom dañoo bokk ci ñi nga xam ne dama gëm na ñoom it war nañoo wane doxin wu bees ci daayira yi ak ak ci biti parce que waaye nag ñi ngi ci ñi ngi ci yoon wi wax dëgg yàlla ndax euh, kër Sëñ Tuubaa la ñuy wut mais bi biñ koy jaayante dañoo tëj bi ñu nekk fay nu téléphone yi daan ne kenn ku nekk joxe 1000 pounds balaa kenn génn am koo xam ne aw kartam la yor ne mën na maa leb leble lu mat vingt vingt personnes waaw vingt vingt vingt personnes yoo xam ne ku ma ci man a fay fii ñaari weer ma jox la sama carte lebal la mille pounds yaakaar naa cent mille xaw ma dajale ngeen ko xaw ma deux cent cent mille pounds ñu dajale ko ci genn ngoon ci waaw fukki fan juróom loolu it moom avancement la te te te pas-pas la it waaw moo tax taalibe yi moom sëñ bi li leen sëñ waa jaral kenn xamut moom moom lu mu doon kon it yàlla fay yéen it te dëgëral leen ndax euh, yéen a ngi wommat taalibe yi bu baax a baax di leen jaarale ci yoon wi nga xam ne mooy wi gën kon yàlla leen yàlla dolli kàttan kon sëñ Njaay Saaliwu sëñ Njaay Saaliwu gi nekku Nakiri euh, mën ngaa jege si jël kàddu ci turu waa fédération Guinée ci turu sëñ Alxaaji Abdou Thiam ak ña fa nekk ñëpp. bismillaahi rahmaani rahiim bismillaahi eh, mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim maa ngi nuyu mbooloom taalibe yi fi teew di sant bu baax a baax a baax cant gi nag ñu ngi koy tàmbalee ci suñu borom tabaraka wa taala mi nga xam ne moo ñu xamale ak Sëriñ Tuubaa moo def mu neex ko mu def ñu ñuy bëgg bëgg sëriñ Touba di ko bëgg tamit di liggéeyal loolu ñu ngi ci sant suñu borom bu baax a baax a baax a baax sant nañu yàlla bu baax sant euh, ñi nga xamante ni bii ñoo ñu dugal ci liggéey bii te daf cay bokk mooy sëriñ Abdou Lahad bi comme ni ko sang bi fi jógee léegi waxe woon ne mu ngi sant sëriñ Abdou Lahad yëpp bu ma limee damay jum waaye ñoom ñooy sama jëwriñ rawatina sëñ Ablaat Buso bi mu nga xam ni moo nekk ci sama côté ndeyjoor moom moom ma moom ma fësalal ci liggéey sëñ Bamba bi waaye nag liggéey sëriñ Touba rek moo wër nag ndax doo ci wet mukk bul nekk ci nga wet fa lool bay am looy tiit li ngay nekk ni dëgg ci yow rek loolu moom moom xam naa ci lu wér-wér waaw e, bërki démb rek dafa am ci e, sëti sëriñ Touba yi muy at yi ji nga xamante ni bii da koo seetaan ci internet bi muy daaw ñu di ma tudd ci biir jumaa ji xolam sedd guri mu départ fii ba ñëw bëgg ne Conakry xam nga liggéey Sëñ Tuubaa rek foo boo ci nekkee rek am na ñoo xam ne ni xëy na ndeysaan seytaane mooy demee noonu waaye ñiy bëgg moom di bëgg Sëriñ Tuubaa ñi ngi bëgg Sëriñ Tuubaa ba léegi sa tëb Sëriñ Tuubaa jóge fii ba Guinée ñëw ne ma am naa mbégte lool ba ma la gisee ngay nga feeñ ci jumaa ji jumaa yi sëriñ tubaa ji ndax nag daa xam na ma nekk woon ci Guinée Conakry muy liggéey ba nga xam ne yàlla dafa dogal ñu dénk ma ko ak na ci na ko yàlla dogalee ba ba mu ba mu egg waaw loolu moo ko jaral mu dem na kon ngeen xam ne li ñu fi wax yépp dëgg wér péng liggéey sëriñ tubaa rekk wóor waaw ndaje mi nag daaw yàlla dogal na fekki ma ko woon waaye ren ji sant naa bu baax a baax a baax bi ma ko fekkee ndax dolli na ma lu baree baree baree bare loo xam ne mënu ma ko wax waaye bu dinaa mel ni ku tàmbali ku toon liggéey sëñ bamba ngaaw waaw bu ma delloo dinaa mel ni koo xam ne kii tàmbali gu ma woon a liggéey sëñ bamba waaye nag ku ko bëgg a liggéey laa de ku ko bëgg-bëgg laa nag xaw ma nag ci li may def xaw ma dara laa ci xamul waaye maa ngi làmbatu rek barki sëñ Tuubaa waaw muy euh, euh, liggéey bii ñu ma ci dugal muy añ rek yëpp am nañu nga xamante ni bii dugal naa leen ci daaw ba gis nga leen ci Euh, liggéey bi nga xam ne dugg naa ci mit muy weer muy koor muy màggal insa euh, dinaa fas yéene daal boobu duñ ci des ginnaaw waaw li tax ma ne la wéet ci liggéey dëpp liggéey Serigne Touba bul wéet ba am nga looy xalaat ndax kat jëmm ji ngeen gis muy jéem di ma jéem a filmé sama xarit la Guinée ab Guinée la daa bokk ci waa Touba Guinée Conakry gi ngay dégg waaw maamam waliyu la waaye moom France la nekk di liggéey muy nag ñu bëgg Serigne Touba waaw sëriñ Touba sëriñ tubaa am na ñu bëgg Serigne Touba te te te te xañ na xañ na nekkuñu fi sax waaye ba nga xamee ne yàlla dogal na xamante ma ak ñoom ma xam ne ñii ñu jàng lañu ñu xam ak Quran lañu man nag ma ne leen ñii daal du ma fi nekk di leen wax kan mooy Serigne Touba te na man sax li ma xam ci Serigne Touba bariwul waaye nag jegam Serigne tubaa bind na xaaral ma jënd ay xasaay jox leen ñu jàng xam kan mooy Serigne Touba. téeméeri xasaayit laa laa yónnee fii ñu jëlal ma ko Touba ma jox leen ko moom mii benn xasaayit lañ ko jox sedd ba ca France muy xasaayitu sindiit yi ba mu ko jàngee ca guddi ga daa gént gis Serigne Touba moom mi nii moom moom Saliou Serigne Saliou la tudd Serigne Saliou Diaby daa gént mu ne cel ñu nigaat ba ñëw Guinée Conakry ñu tase ci benn seen màggalug maam bu ñu def ma ñëw fa mu ne ma ni ma. ni ma dama laa bëgg a woon ci digg mbooloomi li ma gént ba ma jàngee xasida lu si ndiir yi na ma sëriñ tubaa def yow yow mii laa ko def ma ne ko lan mu ne ma kaay ma taxaw mu ñëw bu ci man jël ab jëm teg ko ci sama jëb yi jël bakkanam teg ko sama bakkan bi ne ma nii la ma sëriñ tubaa def bi ma jàngi suur bi ma jàngi xasida lu si yi mi ngi nii sëriñ jaabi waaw kon nag bu kenn nekk fenn ba yaakaar ne wéet nga fa nañ fas yéene liggéey suñu bamba rek ma wóor man bu ma delloo dinaa tàmbaliwaat liggéey suñu bamba de barki sëriñ tubaa sant naa nag wax na moom dama ko mënewut waaye nag ku bëgg bëgg liggéeyal sëriñ Tuubaa laa ku bëgg bëgg sëriñ Tuubaa laa ku ko bëgg liggéeyal la te mi ngi ma ci dimbale nag bu baax a baax a baax ndax bu dafa mel ni ki buñ may eh, dàq fële daal mu mel ni da maa indiwaat ci jumaa ji rek may gën a sant nag rek waaw kuñ dàqee fële nga ñëw indi la ci jumaa yi sëriñ Tuubaa ji daal alhamdulilahi rabbil alamin rek ngay wax jërë géen jëf jërë géen dama yemale fi samay kàddu alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf sëñ Ndiaye Salim kàddu yi rafet na pëste fonu lool macha allah jërëjëf barakallahu fik ñu ngi lay yóbbanti nuyoo tamit ci sëriñ alxaaji abdou thiam ñu alxaaji abdou thiam moom it ku ku baax la te bëri pasteef wax dëgg yàlla moom it bi nga xamee ne daayira muxaddamatul xidma ñëwoon nañ Guinée difa def si liggéey boobu taxaw na ci taxawaay bu ama am solo ci fexe ba lañ doon def lépp ñu def kon ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm kon dañuy jébbal kàddu gi waa Touba Côte d'Ivoire suñ sade suñ sade suñ tuubaaloo mooy jël kàddu ci ñoom kon suñ tuubaaloo bismillah bi nga xam ne si moo représenté daayir murid bi nekk ci Touba Côte d'Ivoire bi yëpp euh, xam naa li nga xam ne si moo ci mat a wax mën nañ ne kilifa yi fi teew yëpp euh, wax nañ ko euh, rawatina kii nga xam ne si ne mooy Serigne Fallilou Diop lépp loo xam ne si li si waroon wax la wax na ko bu dee lépp loo xam ne si ne li si waroon a soññee it mën nañ ne soññee na ko xanaa dañuy jottali rek suñu kàddu ci ay kàddum di fàttali suñu mbokk yi nga xam ne si ne ñoom lañu nekkal ci Afrique bi yëpp waaye rawatina ci Touba Côte d'Ivoire euh, ci lii nga xam ne si ne mooy groupe bu jaayante añu jumaay Touba ci ajuma ju nekk mu mel ne que booba léegi ñu ngi ci soññee di ci woote di ci woote am na ñoo xam ne si ne wusi nañ am na ñoo xam ne si ne wuseeguñ waaye ñoom itam ñu ngi leen di bàyyiloo xel ci ne liggéey bi liggéeyub Serigne Touba la lépp lu ci waay def sa bopp rek nga ko defal kon na kenn ku ci nekk bàyyil xel ci ne loo ci def sa bopp nga ko defal waaye kenn defalu ci kenn lenn lu dul sa bopp euh, ñu ngi leen ci soññ bu baax euh, te di leen ci dollee tàllal loxo rawatina yit lii nga xam ne si ni mooy daaru muxaddamaatul xidma bii nga xam ne si ni moo waral jataay bi tey jii te at mu nekk ñu toog ci jataay bi dippi bañ ci tàbbisee ba léegi euh, di ci soññee loolu ñu ngi ci soññi suñu bopp di ci soññi mbokki taalibe yi nga xam ne si ne ñi ngi ci diwaanu koduwaar d'Ivoire yëpp rawatina ci koro gi nga xam ne si ne foofu leen suñu borom dëxal ñu ànd ci ak ñoom ñu ngi leen di soññ bu baax waaye nag wala yi dañu wax ne tàgge bu nekk am na jàppal diw ñooñu mooy mbokk yi nga xam ne si yàlla dafa dogal ñu amoon carte de membre ci suñu loxo te at mu jot buñ soññee ci màggal gi ñu wuy si ñu buñ soññee ci koor gi ñu wuy si ñu ñooñu ñëpp ab lim lañ kon képp koo xam ne si yàlla dogal nga am nga carte de membre na la wóor ne biir cant googu ñuy sant ak jaajëfal googu ñu leen di jaajëfal képp ko amul carte de membre rek na la nanga bàyyil xel ne yaa ngi ci biir cant googu ndax ñooñu tey jii buñ demee bay mën a siggi ci mbooloo mi di toog di wax ñooñu ñooñ ñi nga xam ne sinu ñooñu kàttanal ndax ñooñu itam ñoo ñi nga xam ne sinu ñoo jàpp ci liggéey bi kon nag ñi nga xam ne si ne yàlla da leen a nattoo mënuñu fexe ba def ci seen benn dërëm loolu ñi ngi leen koy bàyyiloo xel bu fekkante ne bàyyil nañu xel ci ne liggéey bi liggéey la boo xam ne si ne ku ci Serigne Touba boolewut doo ci bokk na kenn ku nekk jéema a booxante ba bokk ci bu ko defee jàpp na yow mii kat sëñ bi moo la ci boole. loolu ñu ngi koy bàyyiloo xel mboolem mbokk yi nga xam ne si ñu ngi ci diwaanu Côte d'Ivoire yëpp di soññ jëwriñ yi di soññ ñi nga xam ne si ñoo topp ci seen gannaaw di góor di jigéen di mag di ndaw. waaye cant gi dëgg dëgg daal mooy ñi nga xam ne si ñoo amoon carte de membre te saa bu ñu leen soññee ñu wuy si ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëful bu baax. sëriñ dex Kane sonn na ci guddi sonn na ci bëccëg mi ngi dox te taayiwut waxtu wu nekk te mën nañ ne diwaanu Côte gi yëpp man ak moom daanaka ñoo ñi nga xam ne si ne saa bu ñu taxawee fii di wax ci turu Côte d'Ivoire lu lu fa yëngatu ñun ñaar ñoo ko yëngal loolu nag mbokk yi nekk ci diwaanu Côte d'Ivoire nañu ci gën a jàppale bu baax te bàyyil xel ci ne lu ci waay def itam si bopp rek nga ko defal li nga xam ne si moom lañu ci mottalee mooy jaayante añu jumaay Tuubaa ci ajjuma ju nekk leeral nañ ko ci groupe yi ay yoon yi yoon yi yoon loolu wax nañ leen ne ajuma bu nekk quatre-vingt mille francs la loolu it euh, mel na ne que sëñ Abdoulaye wax na ko sànq xam le na ne képp koo xam ne si ne yàlla dogal na bind nga moom deux mille vingt ba deux mille vingt quatre moom mënoo cee aaye xëy na kay deux mille vingt cinq loolu nag war na tax nga jaayante di góorgóorlu balaay deux mille vingt cinq sax ay di ñëw nga mën a fexe ba am quatre-vingt mille francs boo ci def loolu ñu ngi ci fàttali suñu mbopp di ko fàttali mbokk yëpp di jéglu bu baax ci guddil gi kàddu yi waaye tamit ngir bëgg yaatal rek ba mbokk yi kenn ku nekk mën cee jariñu di ñaan yàlla ñu daje ci ngërëmal Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul bi barakati borom daarul muxti wasalaamu aleykum wa rahmatullah jërëjëf Sëriñ Tuubaa Lo jërëjëf Sëriñ Sadex te ñi nga xam ne yéenay jëwrin yi bàyyi ko di def liggéey bu am solo ñi ngi nuyu bu baax Sëriñ Ma Fari Njaay moom kuy jàpp ci liggéey bi ci yaatal ci ci Afrique la waaw sëñ Abdou Lahad nee na doon waroon naa ñëw mais kilifa ma ko woo moo tax ñëwut ñu koy ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm sëñ Fallou Diop tamit euh, ñu ngi sant euh, yeneen dëkk yi nekk Angleterre ndax ren bi nga xamee ne ñëw nañu fayit nga nga ne ma ñu soñ ñu jëwrin yi ngir ñu gën a jàpp ci liggéey bi dañ cee wuy si bu baax a baax maa ngi ko doon leeral sëñ Abdou Lahad secrétaire général Euh, dëkk yi nga xam ne demoon nañ fa soññ leen lëkkale la ak ñoom tamit ñoom it wax dëgg yàlla feeñ na ci liggéeyu koor bi muy Manchester wala Birmingham wala Leeds ak Leeds Scotland Bristol ak euh, yeneen dëkk yi yëpp rek fu mel ne export export boobu sëñ Talla Kebe ñu ngi nuyu tamit sëñ Xaadim Diop mu sëñ Saaliwu Diop moom it ku jàmbaare la ci liggéey bi waa ñu ngi koy nuyu bu baax ak yeneen dëkk yëpp fu mel ne Liverpool aussi Liverpool waaw ñoom it eh, ak Safir ak yeneen dëkk yi nga xam ne tudduma leen ñëpp Brighton Croy lii ñoom ñëpp wax dëgg yàlla bi ñu leen wooyee ci liggéey bi ñëw nañu wuy si eh, ñu ngi leen di sant di leen gërëm kon su ko defee dañuy jox Sëñ Mbay Saw waa Touba Portugal mu ñëw mu ñëw Sëñ Mbay Saw wala Sëñ Modou Saw su ko defee mu jël kàddu ci turu Portugal bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala rasuli rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa xayra xadimihi wa ummatihi ajmain wa baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki taalibe yeeg mbokki jullit yi fi teew yëpp noo ngi leen di nuyu te di leen ziara di leen balu àq bu baax te di leen baal di ñaan yàlla na sama borom ba lu ñu jéggal ci barke borom Touba di tàmbalee nuyoo bëgg siyaar bi nag ci seex Mouhamadou Mountakha yàlla na fi gën a yàgg lool te wér yàlla kattanal ko ba lépp lu mu yéene te yéenem yooyu sunu yéene yi dugaale ci biir yàlla na ko matal ci barke borom Touba. di sant bu baax nag tey gërëm sunu jëwriñ jii nga xam ne mooy sunu jëwriñ fii muy sëñ Afia sëñ Afia bu defutoon dara lu dul waxtaan wi mu wax ñun tey jii rek man jàpp naa ne doy na sëkk ci at contribution pour nit ñi mën a góorgóorlu te farlu ci liggéey sëñ Tuubaa bi parce que dafa wax ju tiitlu te yee mooy mooy jëf ndeke ku koy def itam na nga ko sellal ba nga xam ne ñooñu ñuy woo na kaa leen jël yàlla buñ ci am cër te loolu mënees na cee mucc ci dugg ci biir sëñ Tuubaa ji rek kon muy wax ju am solo ju mat a teewlu ñu sant ko sëñ Afia te yaan yàlla yàggal ko te dëgëral ko ci li nga xam ne moom ku xool ci moom rek sellal ndax dañ ko yàgg siiwar te ay jëfam ak waxam yëpp day sell waaye fa kay fa laa fi mu bokk ak ni mu fi bokkee wax dëgg yàlla bu dee xam rek kay tax a sellal faw dana sellal ñu koy booleeg njabootam giitam nga xam ne ñoom ñëpp dañu ànd takku ci ginnaawam fexe ba liggéey bi moom da koy tiim waaye du ko laal te loolu sëñ Abdoulaye yi toog ci sunu wet ak yi ñëwagut ak yi amoon yéene ñoom ñëpp ci lañ bokk ndax yàgg nañ leen a nag yàgg leen a toppatoo waaye xam naa ne liggéey bi nii rek la mën a demee parce que liggéey boo xam ne ay sëñ Abdou kese mën nga ne ñoo ko ŋànk <laughs> boobu liggéey moom yàlla nu ci yàlla dugal te bool nu ci rek kon ñoom itam ñoo ngi jaar ci sëñ Afe <laughs> ngi jaar ci sëñ di leen sant ñoom itam di leen gërëm te di leen ñaanal liñ bëgg yëpp ñoo ko xam ñoom itam yal na ko yaa jàppandal ah li mu ta wax yëpp nag comme ni ko sëñ bi waxee léegi rek sëñ ci jiite dañ koo wax gannaaw bu ko sëñ aafe tënkee ba noppi kon yal na nu yàlla may kàttanu jëf rek ak sellal mooy li am solo mais buñ ñëwee ci Moukhaddamatoul Khidma rek waxoon naa ko fi daaw jéeg xëy na daaw fekkee wu ma ko mais Moukhaddamatoul Khidma aw turam dafa firi niñ ko war a jàppee. bu dee muxaddamatul xidma mooy lu ñu jiitali liggéey kon liggéey yëpp muxaddamatul xidma ci war a jiitu ndax aw turam da ko wane te sëñ Saliou mi leen ko tuddee mooy sëñ Touba kon moom moo war a jiitu mais waxuma war a jiitu gi mu war a jiitu ndax ni mu ko tudd waaye da di mooy liggéey bi ndax àdduna ji ñu yàlla wàcce wàccewuñu wuñu fa dara loolu ngeen ñu jàmm ko wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaxbuduun bon bu fekkee suñu raison ci kaw suuf mooy jaamu yàlla kon maabat bi ñuy jaamoo yàlla ku fa nekk yow yaa nekk ci centre bi li ñuy def yëpp moo xam dama toxi moo nekk ci centre bi li ñuy def lépp te boo xoolee li ñuy def ci dëkk bi yëpp itam nag lu ci ne mu jàppandal waa jumaa ja li ñu bëgg a def rek la bu dee tëli yi fa jëm pour ñu dem julli ji la am déet bu dee làmp yi ñuy taal pour ñu leeral ñuy julli ji la bu dee ndox mi ni gas pour ñuy jàpp ak julli ji la am déet lépp luñ fi def rek pour waajumaa ja jariñoo ko la kon mu Moukhaddamatoul Khidma moo jiitu ci liggéey bi waaye booy xool it moo ca mujj ndax bàq ya gée ñu leen dénk bañ wax fi wax ju rafet ji waa Tulis di def léegi wane na moo ci njëkk waaye itam moo ci mujj ndex kenn ku nekk fa nga bëgg a mujj mooy foofa te ñoom ñoo fa mujj kon nag liggéey boo xam ne moo njëkk moo mujj wax dëgg yàlla sàggande ko wala réede ko dañ ko war daa war a tut kon ci sama bopp lay tàmbale ak waa portigal gépp gannaaw bu ma joxee seen nuyoo ci seen tur daale ko ca jëwriñ ju mag ji sëñ du Sey ak sëñ Maxtaar Ñang ñu koy wax Maxu Ñang ak sama tur man mii ak mbooleem taaliba ya fa nekk xamal leen na soññu daal moom war nañu ndax dëgg la sëñ Assane Diop dañ koy sant di ko gërëm ndax moom saa boo xamee ne bëgg ngaa tayal wala bëgg ngaa yokkat sëñ Assane moo la fay fekk bon bëgg bon ñun waa diaspora bépp lépp lu ñu am ci Moukhaddamatoul Khidma rek suñu boo gërëme ko sëñ asan du tàyyi du sonn du noppalu du bàyyi kenn ngay wala ba balaa te te tudd la ci yoo ci ci ci Moukhaddamatoul Khidma kon lépp luñ fa am nañ ko gërëme sëñ Assane Diop te ñaanal ko yàlla taxawaayam ak kattanam gën a wér moog waa Espagne yi nga xam ne ñooy ànd di wër ak di def lépp luñ jëm ci Muxaddamatul Xidma li ci des nag mooy ginnaaw liggéey moom leer na naññ sëñ bi wax na ko léegi sëñ Abdou Lahad leeral na lépp ñun ñëpp dégg nañ ko kenn ku ne na takku te jëf jëf doo nga am solo ndax affaire bi du waxi kese xanaa boo demee ba xam ne lii la amee maanaam moom Muxaddamatul Xidma ndax moo jiitu ci lépp nii la amee maanaam ndax moo mujj ci lépp léegi lu la tee ci jëf amatul kon ci sama bopp laay tàmbalee maag mboolem waa Portugal dinañ xamal ne yàgg na noo jëf te sëñ Abdoulaat maam Assa defe naa ne moom laay jokkool saa su nekk ci lu jëm ci koor eh, koor gi ak waajal màggal gi waaye nag ku taxaw fi benn barab danga gis ku la raw kon yem ci koor gi ak màggal gi kese baax na lool waaye am na lu ko gën te mooy jaayante jumaa ji ambulance bii ñu wax oto mbalit bii ak lépp luñ fi lim tey jii nañu fexe taxawal kees goo xam ne day jëm si ci yooyu yëpp bu dee dañ koy partagé lu ne jëm fi barab itam ñu fexe ba def ko meneen réew def ko meneen réew def ko parce que Moukhaddamatoul Khidma dañ ko war a nose ndax àdduna bépp xam nañ ne Touba moom mooy yëf yi te yëf yi mooy euh, jumaa ji waaw lu la wóor ne nag lii ba ko suñ tabaay wax dane ku ci jiitu da ngay jiitu ba faw ku ci feeñ da ngay feeñ ba faw ku ci doo dootoo feeñ loola maanaam ngir laa bi de murid yëpp war nañoo teg murid yi aw yoon woo xam ne murid yëpp ci participer buñ ko bëggee buñ ko bañee waaw te loolu système la yoo xam ne yomb na léegi ndax xarala yu bees yi kon noo ngi ñaan muy réew yi ñoo koy defal seen bopp wala boog mu xadimatul xidam mooy xoog tëral benn programme boo xam ne réew mu mu tàbbi ku fa nekk lu ñuy wax ci mu xadima mu xadimatul xidam rek di nga ci def sa dara parce que murid itam il faut ñu dimbali leen nag parce que liggéey bi daa bari li ñuy laaj daa bari mbooloo yi daa bari ñiy woote dañoo bari yëpp nag jëm ci sëñ tubaa kon nosee rek ni ko fi sëñ Mbàkke Abdourahmane waxeen ci benn conférence ne dañ ñoo war a noseel suñuy mbir affaire bi nosee rek mooy tax lépp di dox te dara du sooxe kon de ñun ñoo ngi ñaan loolu te ji am ay xalaat yoo xam ni bu soobee yàlla ñun waa Portugal dinañ ci taxaw di ci woo suñu mbokk Europe yi yooyu yëpp nag ñii waa Angleterre def daal ku exemple di doy daal doy na la sëñ Fallou Diop yàlla na ngeen gudd fan ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan nag ci barke borom Touba bala ñu fee tasewaat déwén waa Portugal yàlla na raw ci mboolem lu ñu fiy def wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa Sow kàddu yi rafet na lool te pasteefu moom moo yor kàddu communication ndawi diaspora bi muy réew yi nga xam ne dañoo tënk seen bopp muy ndawi murid yi nekk diaspora bi moo yor seen kàddu loolu it kàddu yi mu yëkkati feeñal na ne mat na kàddu googu mu yor kon suñ euh, mam bàll gi mën ngaa jege si loolu mu wax tamit ci ne lu ñuy def dem julli si moo tax loolu dëgg la dëkk bi moom bi ko sëriñ bi sanc da ko sanc ngir jaamu yàlla rek jumaa ji àgg na ñaari at ñuy xaar julli gi ngir xàll yoon yi jëm si Tuubaa maanaam Sëñ Fallu jumaa ji bi mu àggee toogaat nañ ñaari at yoo xam ne xàll yi yoon yi yi ñu doon defar te àggagut ngir ñu mën a ñëw ci jumaa ji moo moo moo tax taxawal nañ marché bi ngir xaar nañ ngir taxawal marché bi di ko woote ajjuma ngir nit ñi mën a julli si tëli yi nga xam ne mooy Daara Jolof Daaru Musi tëli Mbàkke bi tëli yooyu yëpp dañoo xaar ak ba ci Kaffrine dañoo xaar ndox miñ jut fayit looloo ko andi nga xam ne Sëñ Fallu moom lépp da koo tënkoon ci jumaa ji kon loolu mu wax loolu mooy mooy mooy li wér waaw loolu moom moom xamu fu mu ko waxee waaye moom li mu wax moom wér na lool moom kon suñ Mame Balla Gueye yow yaay wax ci tur waa yëpp euh, ñu jox la kàddu yi yow teew nga fi ànd ak sëñ Mbaye Thiam ak sëriñ Jili Mbow waaw auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim barke borom Touba barke borom Touba wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw buñ sante yàlla sunu borom subhanahu wa taala julli ci yonenteem bu tedd ba yeesalaat suñu fas-fas ci seexul xadim ñaanalaat bu baax a cheikh muntaxa yàlla suñu borom yàlla ko fi loolu te wéral ko di ko ñaanal sëriñ Abdou Modou Mbenda ak mboolem njabootu sëriñ Tuubaa gi di nuyu bu baax a baax di ziare waa daayira mu xatimatul xidma yëpp di jël nuyoo bi ziare bi teg ko ci jëwriñ sëriñ Afia Bousso al imam tey ñaan yàlla suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ñu yàgg fee ñëw te yàgg ko fee fekk ci barke Cheikhul Khadim noonu la ñuy ziyaare jëwriñam yëpp dañuy bañ a lim di guddal di jël nuyoo diaspora bi yëpp teg ko ci loxol sëñ Assane Diop mu ziyaareel ñu mbooleem jëwriñ fi teew te jóge ci diaspora bi ñu ngi leen di ziyaare bu baax a baax di ziyaare waa daayira Muxaddamatul Xidma bu Mali ñu àndi seek jëwriñ Serigne Mbaye Thiam ak sëriñ Serigne Djili Mbaw ak sëñ Mor Talla Thiam Mor Talla Ndiaye ñu ngi koy lii bu baax a baax di ko ziare moom tamit di jëwriñ ju baax di koo xamante ni ku yor liggéey bu rëy la fële ñu nekk ca Mali tey jii nag ma ni ko ndaje bi mënoo cee ñàkk bañ a teew ngir déglu kàddu yi ndax kat kuy jàpp ci liggéey daayira Muxaddamatul Xidma la ak mbooloo mu jiite ñu ngi koy ziare bu baax a baax xañ na kàddu yi di gudd ndax li ci waroon a wax lépp jëwriñ ñi wax nañ ko ah liñ ci dolli tuuti rek. mooy fi sunu baay bu baax bi bàyyee léegi muy nosub daayira bi ci bitim réew rawatina ñun wàll wiñ féete muy wàllu Afrique nga xamante ni jamono jii ñuy wax xaw naa amuk sooxe lool te li ko waral euh, jokkoon nañ ci ak jëwriñ yu bari yoo xamante ni ñu jiite ay liggéey bi lan foofa li ci ëpp daal li ni wax ni na leen ko jàll leen ngir jëwriñ yi dégg ko muy lu jëm ci wàllu communication bi nga xamante ni dina jàll ci diaspora bi wax na ni daal ñi ngi ñaan ci jëwriñ yi ñu dimbali leen ci wàllu communication bi ndax Mame Balla rek doyul ndaam sëñ Asan mi ngi ciy def kémtu lay kàttanam ndax mi ngi créer ay groupe whatsapp mi ngi créer tamit ay ay ay ay ay euh, youtube yu nekk mi ngi koy def di jël ay image di dugal wante doyul ndax dafa am jëmm yoo xamante ni ak kàddu yoo xamante ni ah, dañ koy soxla lool ci groupe yi di ko soxla ci image ndax gis nañ ni ñoom li wax mooy bala ñuy gis seen image rek mooy dañoo jébbale àddiya ñu defal leen interview yi te loolu baax na lool wante nag doyul ndax gis nañ ni ah, lu jëm ci màggal wala yeneen programme yi télévision yu bari dañuy daw dëgmal jumaa ji dinañ wax programme yu bari nag wante diaspora bi day mel ni dañ leen di xaw a fàtte te war nañ leen di leen defal ay plateau di dajale jëwriñ yi ñuy toog di waxtaan ci liggéey daayira Moukhaddamatoul Khidma diaspora di ko yaatal ndax da ci am solo ndax fi mu ne nii danoo toll foo xamante ni média dafa am solo ci liggéey liggéey bi ñuy def muy liggéey Sëñ Tuubaa te war naa mën a gën a yaatu war na noo gën a xam turu daayira Moukhaddamatoul Khidma sori na lool wante nag jëf ji da xaw naa néew trop te daayira Moukhaddamatoul Khidma kat fi mu toll wax dëgg yàlla tur wi war naa fi tur wi toll jëf ji war na koo paase mooy communication bi di jàll jëwriñ yi di ñu dimbali ci wàllu communication bu baax a baax a baax a baax ah li ci topp tamit mooy bis yi nga xamante ni wax naa ko léegi muy lu dem màggal wala koor gi wala yu mel noonu télévision yi ciy ñëw war na man am commission la loolu lañ koy waxee wala loo xamante ni euh, mbooleem jëwriñ diaspora fu mu mën a doon moo xam muy Amérique Espagne fu mu mën a doon war nañ faa tànn ku te kenn koo xamante ni xelam màcc na ci communication ñu def benn groupe boo xamante ni maanaam ñoom ñooy daje di waxtaan ci wàllu communication nan la ñuy def ngir maanaam di jàllale liggéey bi. bu fekkee ni rek dafa des ci menn mamba la muy nekk ci benn groupe whatsapp di wax daanaka déglu gi ak teewlu gi du am solo wax na ni loolu bokk na ci liñ jàpp ni maanaam liy sooxe liggéey bi ci la bokk. ñaareel bi tamit wax na ni jëwriñ yi defoon nañ fi benn tournée boo xamante ni ci jaar-jaar yi bi. nee na boobu am na solo lool ñu bëgg ci wante waa Mali nee na xañ na sëñ bi li mu fa jaarul moo tax <laughs> jëwriñu jaaruñu fa <laughs> moo tax nag moo tax nee na ñoom dañoo bëgg maanaam tournée boobu bis bu ñu koy defati wala ñu def bu mel noonu tudde ko maanaam pour daayira mu xaddimatul xidma jëwriñu jóg sol seen dàll fépp foo xamante ni jaaroon nañ fa ñu jaarat fa ngir yaatal liggéey bi nga xamante ni mooy daayira Muxaddamatul Xidma ndax wax dëgg yàlla soxla nañ ko tey yàgg nañ koo bëgg yàgg nañ leen a séentu tamit ndax euh, bu ma juumul Touba ci kanam bi ñu ko defee danoo déplacé wu ñëw ba Mali man lan ma fekk ci jëwriñ laa bokk sëñ Jili Mbaw me ci jëwriñu tubaa ci kanam xam naa boo làmboon poos bi léegi nga fekk fa bologu tubaa ci kanam kon liggéey sëñ Touba la maanaam bu amee yoon boo xamante ni rek da koy da koy doxal rek maanaam wax ko jëwriñ yi xaj na mi ngi seenum xel sax ah mi ngi seenum xel wante nag wax ko ngir ñu mën koo jëf da ciy am solo ndax am na ci ñoo xamante ni bala ñuy mën a jëf faw ñu gis jëwriñ joo xamante ni xam ni kii moom du Mame Balla Gueye wante dañuy jàpp ni feeg Mame Balla ngi wax rek liggéey bi des na wante bu buñ gisee sëñ Abdoulaye Bousso sëñ Abdoulaye Mame na ñu xam ni ñii kat ñoo yor liggéey jumaa ji ñoo taxaw fii di leen soññ ci liggéey bi pas-pas bi dina dina dina dina dina gën a yokk te xañ na bu fekkoon ni kilifa yi déplacé wu nan ñëw fa dinañ xam ni kon liggéey bi kat du liggéeyu caaxaan te ni mu amee Mali ni la amee ci yeneen réew ndax bu ma juumul ñi fi ñi fi indi seen addiyee ren ci bitim réew euh, euh, euh, bariwul te lu ma loo xamante ni cinquante nangam daayira kon waroon naa toll foo xamante ni maanaam bun ñeenti réew sëñ Assane nee na ñeenti réew ñoo jógee ci diaspora bi indi seen addiyee kon xam ngeen ni liggéey bi soo na ci diaspora bi kon ñu ngi sàkku ci jëwriñ yi wàllu communication bi ñu gën koo yokk bu baax a baax a baax a baax a baax wàllu plateau yooyu may wax tamit ku ci mel ni sëñ Assane ak jëwriñ ñi doon wax léegi ñoom sëñ Fallou ñee xam nga ni ñooñu ku leen dajale ci plateau teg leen ci télé ñiy wax lu jëm ci daayira Moukhaddamatoul Khidma diaspora ki toog jàkkaarloo ak écran di déglu bu paree dina xam ni kat ñii kat liggéey bu am solo nañ li liggéey kon loolu rek lañ ci doon lañ ci lañ ci doon dolli ngir bañ mu gudd wante li ñuy sàkku daal mooy ñi ngi ñaan ci barke Seexul Xaddim liggéey bi ñu sumb muy añi euh, jumaa ji ah ñun waa Mali de bu ñu demee dinañ xoolaat nan lañ ciy doxe damaa ñimeegu la nag jël engagement ni dinañ def nangam wante liggéey boobu bu sooba yàlla dinañ ci sóob suñu loxo waxoon naa ko tamit ban dajee euh, bërki démb ci kër euh, sëñ Abdou Samad neewaat naa tamit maa ngi maa ngi ndakaaru su ma demee tamit la ma ca man ci yaatal ko foofu dinaa ko def fépp foo xamante ni daal sama kàddu àgg na fa ngir liggéey boobu dox bu sooba yàlla dinañ ko def ñu ngi leen di jégg lu baax a baax ci kàddu lu ci dëng rek ñu xam ni bëgg lu baax la rek ñu ngi tuub bu baax a baax salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu fi leeral tuuti maanaam dayru Muxaddamatul Xidma moom moo amagul benn politique boo xam ne tournée diaspora la wax di yàlla amut boo dee xool ci dëgg-dëgg benn yoon lañ mas a tournée ci Europe ànd ak sëñ Mamor te moo ko sàkk woon yi ci des yëpp réew yi ñu dem nii man may tukki sama tukki bopp wala léeg-léeg sëñ Abdou Lahad Massa di ci bokkaale di liggéey yàlla daayira bi ngir yaatal ko loolu it dafa mat waaye dëkk yi ñu dem du caagee ne biro bi ñoom ñoo xalaat ne dem leen bureau dëkk sàngam wala dëkk sàngam kon nag sagam kilifa yi yaa ngi nii te dégg nañ ko xam naa danañ xalaat ci <laughs> fexe seet benn tournée boo xam ne nag dañ naan ndaw yii ñoo leen jële fii ci jumaa ji yabal leen ci dëkk yi ngir ñu yaatal liggéey waaye dëkk yii nga xam ne yéen a ngi fay dégg nag pour pour nga jàpp ne dañoo bañ a beral waa Europe rek wala déet loolu dafa mat a leeral man mii léeg-léeg maay tukki sa Angleterre gee maa fay dem sama dem bopp ngir di bokkaale liggéey bi di ko yaatal ak yenn dëkk yi nga xam ne Sëñ Abdou dana fa dem wala yooyu waaye man sama tukku bopp lay tukki bokk ko ci rek waaye jëwri yi nag jëguguñ ngir dem ci dëkk yi ngir yaatal yeneen dëkk yi suñ jiili mii mooy réaliser benn benn benn film jaar-jaari sëriñ bi moo taxoon ñu dem daaw Côte d'Ivoire bene Togo ba Gabon waaye demuñ woon ngir yaatal liggéey bi waaye fu ñu dem rek sagam ñun matt gi ñu moom dañ koy gàddu jëme ko fu nekk fu ñu dem faaw ñu ñu fesal ko fa loolu mooy li war waaye xalaat bi am na solo ci ñaari fànn yi nga wax yépp kon plateau yi nga xam ne dañ ciy éviter mu Moukhaddamatoul ma sëñ jili fexe leen ba kon di am ay plateau yu doy yoo xam ne it dañuy organiser plateau yoo xam ne diaspora bi dañ ciy participer wax na lu am solo kon secrétaire général mi ngi dégg danañ xalaat tamit lu ñu def ba def tournée Afrique ak tournée Europe boo xam ne day bi ci boppam ñoo koy initier nga xam ne du doon loo xam ne nit a dem rek boqaale ko ci. loolu it lu lu am solo kon waa Togo sëñ Cheikh Diop ak sëriñ Cheikh Ahmadou Bamba jóob ñoom ñoo fi teew ak sëriñ maamul Dieng nag kuy wax ci seen tur mu ñëw mu ñëw mu ñëw mu ñëw teew. waaw xanaa dañuy comme ñoom fi ñu dëkk dafa xaw a sori. moo tax waaw sëñ bi moo ñax dañuy sant rek bu baax ndax man sëñ Afi Boussa moo ma jàngal xam-xam moo ma jàngal xam-xam ba ma génn bitim réew ba ma demee toog 1982 fekk ma fa daayira fekk ma fa kër sëñ Touba man maa fa sos kër sëñ Touba di ñaanal sëñ Abdou Karim bu sëñ bu sëñ Fallou ndax moo ma ci jàppale woon euh, maa ngi sant nag bu baax a baax a baax ñi ma fa baawoon muy Mamour Dramé ak ñi fa nekkal ndax fexe nañ ba def fa kër goo xamante ni si def naa sëñ Abdou Lahad demal nga fa waaw loolu njàmbaar mënu ko weesu waaw ñoom nag dañu duñ wax ne dañuñ duñ mën a ñëw ndax daa am fu ñu demoon tey waaw ñuy sant sëñ Afe bu baax a baax te day xam ni ci ni ma ko gisee man day mel ni liggéeyam la day mel ni liggéeyam la man moo ma jàngal xam-xam ba ma génn bitim réew laa fa liggéey lépp mu ngi mel ni li li li sëñ bi dañ wax léegi. waaw mel na ni soññee bi mooy ni ko ko baax kooku waxe woon. sëñ bi lu ko waay defal mu faye la lu lu la jomb man ci sama bopp laa ko xamee kon maa ngi soññi képp ku nekk bitim réew di liggéeyal sëñ Touba ni ko sëñ Abdou Lahad Mbacké waxee radiyallahu anhu waaw waaw soññee bi daal foofu laa ci mel ne xam naa soñ bi moomu sonal waaw Mamour Dramé nag maa ngi koy sant bu baax ndax nit boo ko bàyyee fi béréb fanweeri at mu liggéey fa kër goo xam ne cent trente million la bi ñu ñëwee suñu Muntaxa ko yebal caabi yi daaw jéeg loolu la wax te suñu blaat ñi fa dem xam na ni noonu la demee waaw bañ fay jógee man 1992 laa fa jógee booba léegi delluwuma fa te daa mel ni lañ fa sosoon dara topp ci da caa yokk waaye dara topp ci nañ fa doon jàngi alxuraan nañ fa da jàngi xasida yi te ba keroog muy fa am kër Sëñ Tuubaa ko doy noonu kon nag ñu ngi koy gërëm bu baax a baax di ko sant ak mbooloo mi waaw di ñaanal sëñ Afia Bousso mu yàgg fi lool lool te loolu muy wax nag man am naa ci lu wér a wér a wér moom ci boppam day murid saalix moom ci boppam murid saalix waaw ndax gis naa lu ma wan lu baree bari loo xam ne murid saalix moo koy def kon nag nañ koy sàkku ci moom mu ñaanal nu ci daraje murid saalix ak yéen ñi nekk bitim réew lépp lu ngeen bëgg a liggéeyal sëñ bi yàlla may leen kàttan gi ak wér-gu-yaram allahumma salli ala sayyidina muhammadin masalim waaw jërëjëf sëriñ Cheikh Diop kàddu yi am na xam ne mooy jëwri nii kër sëriñ Tuubaa gi foofu Touba Lomé ñoom it ñu def ñu fay def liggéey bu rëy rëy rëy wax dëgg yàlla wax na wax na dëgg moom it dem nañ fa bi ñuy toppi tànk sëñ bi ñu taxaw ci liggéey bi bu baax a baax boobu ak lay kon euh, sëriñ Sadeex Cuun wala sëñ Baye Ngañ Cuun wala sëñ Maam Góor Ñang wala sëñ Góor kan moo ci jël kàddu ci turu waa Turki mën naa jege si bismillah yéen nag nangu nañu bagage yi bu baax bagage yi bagage yi daa ñëw mën <laughs> ngaa jël kat xam nga Turquie mooy mooy Istanbul mooy dëkk bi ëpp ay jumaa lañu wax ci bëri bokk na ci xam naa léegi Touba sax ko ëpp jumaa waaye am nay jamono hmm. moo ëpp ay jumaa ci àdduna bi waaye fi mu ne moom jàpp naa ne jàkka ak jumaa dëkk bu ëpp Touba bëriwul moo tax lu aju ci wàllu setal muy Eh, liquide boobu ñuy raxase karo ak serpillière yi ak bale yi baax yooyu nga xam ne daa ngeen ñu ko indil ah jumaa ji namm na ko lool lool sax kon nag moom nga bàyyi walla ci xel wa bismillah onze billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk jullit yi bi teew asalaamaaleykum wa ñaan yàlla suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ba naal yi nga xam ne fekk na gaa yu baax yi naalu ko sëriñ bi mu yëgale naal yëpp ak naal yi boppam bi barke borom Tuubaa di ko ñaanal sëriñ Amady Fall moom Cheikh Mawone Mbendal mu yàgg fi lool te yàgg jëkku ndigal yi barke borom Tuubaa ndongali Sadiq Thioune mooy jëlee kàddu ci ndigalul jëwriñam yi nga xam ne ñoom la àndal muy Serigne Baye Ngan Thioune mi nga xam ne moo fi teewal Serigne Amdi Gueye mu jiite daayira Touba Istanbul Touba Kanzul Muqtadina bi nekk Turquie ñu ànd ak sunu jëwriñ mi nga xam ne moo jiite culturel muy Serigne Bassirou Diba ak Serigne Mame Goor Niang ak Serigne Pape Loum di ziar nag bu baax a baax a baax Serigne Afia ak mbooleem ma daayira Moukhaddamatoul Khidma waaye di ziar it Serigne Assane mi nga xamante ni bii sunu liggéey ak sunu tab bi ci biir liggéey bi ginnaaw yàlla ci moom la ko Serigne bi jaarale. ñu di ko ñaanal suñu borom moom it suñu borom wéral ko mu sëriñ Assane Diop Moukhaddamatoul Khidma yàlla wéral ko kàttanal ko ba yéeneem ci liggéeyub sëriñ bi ci jumaa ji ak daa liggéeyub soxna jaara rek lépp rek fu mu ko bëgg a àggale mu àggale ko fu barke borom Tuubaa kër gi nag comme ni ko Cheikh Blad waxee day da am dëkk bu ne ak la muy gën a yemb ci moom ci wàllu matériel waaye Turquie ci wàllu hygiène xëy na suñu borom yembal nañu ko ba daanu ko indi jamono ju nekk di ko indi ngir jàppandalu setal jumaa ji yàlla suñu borom dogal na it bi ñuy wàcc jumaa ji déggoo na ci ak suñu asan ba am nay fàggu nañ ci loo xamante ni bii daanaka tubaarkàlla waaye xëy na jamono ji ak ni muy doxe ak conteneur yi tardement yi tardement gi métte moo tax sax ba am nañ ci gàcce goo xam ne sax daanaka jégg na dayoo ndax yéen a jin amoon mooy ñu jébbale ko lu jiitu màggal gi waaye nag xëy suñu borom moo ko dogale noonu waaye moom gëm na ne moom mi ngi ci yoon bi te incha allah rabbi balaa yàgg daan koo indi ci jumaa yi jëbale ko bu neexee sëriñ bi bala yooyu it incha allah comme dégg nañ suñu jëwriñ yi nekk ci ginnaaw nu ko jàmbatee muy deux mètres yi ak deux mètres cinquante yi daan ko gën a dolli gën koo fàggu gën cee taxawaay benn taxawaay boo xam ne moom dootu fi manqué bu neexee sëriñ bi liggéey bi nga xamante ne bii ni dégg nañ ko fi muy lu jëm ci këru gan ñi ak añu àjjuma yi ak lépp loo xamante ne bii dégg nañ ko fi rek muy li mu jëm ci liggéeyu jumaa ji incha allah rabbi taataan nan ko te daan ko jébbal jëwriñ ji nga xamante ne bi moo jiite liggéeyu daara ji muy sëriñ am liggéey bu bépp taxawaay wala bépp engagement bu mu ci jot rek dana ko ànd ak ji yépp te daan ko jot li kilifa yi nga xamante ne bi ñoom la ko war a jotali ci kàttalu sëriñ bi ñuy sàkku nag ak ñaan ci mbokki taal bi nga xam ne ñoo nekk Turquie ndax jamono jii ku ne dégg na ni mu demee ci dëkk bu soppiku ak kilifa ga jékki-jékki rek soppi jamono ji lool di xeeti këyit yeeg yooyu ak la ciy aju waaye ginnaaw jotaay bii day jotaayu yaakaaru ñuy sàkku ñaan ci képp koo xamante ni bi yaa ngi fi teew rek nga gën a ñaanal mbokki taalibe ya fa nekk suñu borom gën faa defuk dal gën a yëmbalaat këyit yi nga xamante ni bii moom la mbokki taalibe yoroon ba man di dem di ñëw ak nekkaat ci liggéeyu sëriñ bi ñu ngi képp ku fi te jëmmi sëriñ bi rek tax nga gën noo ñaanal suñu liggéey bi nga xamante ni mooy liggéeyu jumaa ji ñuy ñaan suñu borom lépp bépp yéene boo xam ne waaye am na ko fi yàlla suñu borom kàttanal la ba fépp foo xamante ni fa nga ko bëgg a yóbbu nga yóbbu ko fa noo ngi tuub nag bu baax a baax a baax a baax yeexu yegg si bagage ci màggal bi ñu ngi bu baax a baax a baax waaye amoon nañ yéene yi mu yegg si ñu ngi koy tuub di ko tuubal sëriñ bi jërëjëf si Abdoulaye. jërëjëf sëriñ Sadex kàddu yi am na solo te posté ko bu baax a baax a baax bagage yi moom màggal gee koor gi moom saa su accès baax na gars yi dañ ko yàkkamti waaye pas-pas bi ngeen ci def tamit ndax xam nga jumaa ji moom da du doyal bale ñoom suñ seexu naa ñi xam nañ loolu du doyal ay bale moom lu mu bëri bëri bëri bëri doy nag dangeen ngeen am bale yu baax yoo xam ne moom am ko fii sax yombul moo tax moo tax ñi ñuy sawar ci di ci di ci jot xëy na yooyu li tax ñu yàkkamte ko mooy nawet bi bu tawee ba noppi bant yu gudd yooyu di di nettoyer dafa noppale lool moo tax kon ñu ngi lay sant waaw mooy waaw bisimilah am na mbootaay goo xam ne ñoom soxna Astu Guèye ñoom it euh, dañoo lëkkaloo di jaayante ngir jëf ci jumaa ji di fi indi ay matériels yu bari ñoom it dañ laa joxaale woon seen kàddu waaw nga jàppale ko waaw ñu ngi koy tuub bu baax a baax sëñ Ablaat comme ni ko sëñ Ablaat waxee rek sëñ Ablaat Mama sax comme ni mu ko waxee soxna su léegi la ñu woo rek ci jotaay bi xamal nañu ne am na ndaw lu mu yebaloon sax waaye kooku daa xool bi avion am defe naa ne mu am jafe-jafe ba mu toll ci war a dem dellu ci yitte yi moo waral teewalu ko fi waaye daal mi ngi jot li ak kentam ak it tawféex ak mbégte moo xamante ni bi am na ko ci liggéeyu Moukhaddamatoul Khidma bi di ñaan moom ngeen ñaanal ko ndax daa yor ab liggéey boo xam ne daa sosandikoo ci dëkk yu baree bari yoo xamante ni bi ay nit ñoo xam dañ cee fas yéene ak moom muy ñaan ngeen liggéey boobu suñu borom taxawal sëriñ bi taxawal ko kàttanal ko ba fu mu ko bëgg a matale rek mu matale ko fa di soxna soo xamante ni bi yàlla suñu borom ak dogalam ñi nga xamante ci liggéeyu sëriñ bi képp moom ba waral mu ba waral mu ndeysaan di ñu jot looy kàddoom ñuy sàkku moom it nga ñaanal ko sëñ Abdoulaye comme ni mu ko sàkkoo rek ak mbokki taalibe yi nga xamante ne bi ñoom la seqal liggéey boobu ku am yéene nag ci liggéeyub sëriñ bi la loolu moom luñ mat luñ ama am seede la te soxna la ngi ngeen ñaanal ko rek suñu borom dëggal ko kattanal ko ba yéeneem ci sëriñ bi mu àggale ko saa su nekk barke borom Tuubaa jërëjëf euh, ràññee nañ parce que lool ci kaas ay kaas yi ay matériels yu bëri yoo xam ne day amal njariñ jumaa ji mu bokk tamit ci kuréel gii di e, tuuba xëpp ndox mu neex maanaam kuréel boobu ñun xam nañ ko mag si blaat mi nga xam ne ñooy ndawi daayira bi ci biir kuréel googu ngir ñuy taxawu liggéeyu forage bi di ay boroomi xam-xam di ay ingénieurs yoo xam ne ñu jàmbaare lañ ñu ngi liggéey ak ñoom ci coordination bu am solo ngir forage bi ñuy taxawal soxna soosu ci biir kuréel boobu la bokk kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant waa jaayante liggéey ci jumaa ji ñoom ñëpp barki borom Tuubaa su ko defee kon ñu ngi sant tamit waa siin eh, daayira Sëriñ Tuubaa bi nekk siin sëriñ Madoun Booy jiite ko teewuñ waaye ñoom it eh, jëf nañ ci jumaa ji fo parasol yi ngeen di gis ci li jumaa ji ak matériel électronique yu bëri dañ koy indi ngir liggéeyal Serigne Touba ci jumaa ji muy kon taalibe Serigne Touba yi nekk siin tamit ñu ngi leen di sant di leen gërëm te di leen ñaanal su ko defee kon dañuy jox kàddu gi waa Touba Argentine Serigne Dame Cissé mën naa ñëw Euh, su noppee waa Uruguay ñoo ci topp ñoo jege si sëñ Dame Cissé bisimilah waa Uruguay mën nañoo waaj ñoom it sëñ Saliou Tine ak sëriñ Gora Thioune billahi min aseytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wal tudxil almuslih fi yaddi wa fi daari wa sabbit bilhaadi wa fii assalaamu aleykum wa wa barakaatuhu mbokki jullit li mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu ci di leen ziyaara ci turu fédération Miftahul Nasri Touba Argentine ci njiital Serigne Mortala Sall ak mboolem ñu àndal liggéey bi yépp ci Touba Argentine di jiital ci nuyoo bi ak ziyaar bi sahibul fadila Serigne Touba Serigne Mountakha Bassirou Mbacké di ko ñaanal yàlla suñu borom mu yàgg fi loolu te ak njabootu Cheikhul Khadim gépp noonu lañ koy ñaanalee borom jotaay bi di kilifa jotaay bi sëñ Afia bu sa imam bu ko defee di ko siyaare moom it di jël nuyoo bi ak siyaar bi di ko teg ci loxo sëñ Abdou Lahad Mame Thierno sëñ Abdou Lahad Mokhtar ak sëñ Abdou Lahad bu ko defee ñu tegal na ko ci mboolem membre yi mu xaddamaat xidma yépp ñoo ngi nuyu mbooleem jëwriñ ju fi teew bàyyi ko ci gox yi fasantikoo ci àdduna bi ginnaaw bu nu siyaaree sëñ Assane mi nga xam ne mooy jëwriñ diaspora bi sëñ Assane Diop bu ko defee mu teg ñu teg ko ci loxoom rek mu matale ne ko ci képp kuy dégg suñu kàddu ci barab bi di nuyu sëñ Mbaye Sow mi nga xam ne mel ne mooy secrétaire u pencum diaspora bi ndawi diaspora bi ñu ngi koy ziare baax di ziare sëñ Fallou Diop ci Pastef bi euh, kàddu yi soññe am solo yi ci li nga xam ne moo jëm ci liggéey bi nga xam ne moo jëm ci añ yi añ yi nga xam moo jëm ci euh, ajjuma yi ñu ngi koy jaajëfal baax xam naa di sof rek di di sof ci kàddoom di soññee boobu rek di ci soññ suñu bopp di ci soññ mboolem Latin Amérique xam naa buñ ci tuddee Argentine ak suñ mbokk yi nga xam ne teew nañ fi muy waa Uruguay nga xam ne lépp ci Latin bi la bokk ak waa daayira Chile ñoom it ci Latin bi bokk ak mboolem lu aju rek ci Brésil yépp rek ñu bàyyi xel bu baax liggéey yi nga xam ne mooy liggéey mu xet ma muy liggéey bu am solo boo xam ne yëmul rek ci jumaa ji waaye lépp lu euh, lu lu lu wër xoromu jumaa ji ba ci euh, baqe ak lépp rek ñu yor ko muy liggéey bu bu bu kawe kon ñoo ngi ci soññ mboolem Latin Amérique bi mboolem réew yi ci soq ko yépp ñun ñëpp ñu gën góor góor lu baax xam naa bu ñu delloo ni ñu ko waxee sëñ Fallou léegi keroog Massi Abdoulaat euh, Massi Abdoulaat bu semi Maam Asta keroog bi ñu yegsee ñëwee ci jumaa ji doon jee siyaare si xam naa ñu ngi ci doon soññee sax ba am na mbokk yu doon laaj numéro Sëñ Fallou mii ba ma jox leen ko ak menn mbokkum jëwriñ mu jóge Italie xam naa ñooñu neenan bu ñu yeggee danañ taxaw ci loolu kon muy lu am solo nga xam ne jot na woon a gisante sax Cheikh Blas Bousso mii laa doon laaj numéro yàlla def na bi ñu toogee fee ñu doon ci waxtaan xam naa incha allahu taala bu ñu yeggee danañ ko jot li jëwriñ dana ko dégg incha allah bu ko defee dana ci soññee mboolem fu taali bi nekk ci fédération ci daayira yi bi nga xam ne moo aju ci Miftaahu Nasri ak mboolem latin ba danañ ci gën a góorgóoru baax ba mille yooyu suñ fàllu di sàkku ñun ñu dugg ci biir ci liggéey bu am solo boobu kon loolu mooy kàddu yi ñu ngi koy gàttal ndax waxtu dafa guddi ñu ngi ñaan yàlla suñu borom ñu daje ci wax xit di xaw a jël la si na daamoo fii xidmati wa hab lahum maaraamu barkib Cheikhul Khadim salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ah jërëjëf waaye sëñ Dame Cissé jërëjëf kàddu am na solo lool te tënku te posté ñu ngi lay yóbbanti nuyoo tamit ci sëñ Talla Sall mi mi jëwriñ jëwriñ yi Buenos Aires ñu leen nuyu di nuyu tamit waa bresil São Paulo ak euh, Face Fondo ak dëkk yëpp ñoom it ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di ci jiital sëñ Ahmadou caam ak sëriñ Aymiru Jaxate ñoom it ñu ngi leen di nuyu boo nee Argentine rek ne Brésil ñoom it ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen soñ soññ seen addiyee ñëwoon na ci koor gi kon it ñu ngi soññ bokki taalibe yi bu baax kon su ko defee kàddu gi dañ koy jox waa Uruguay sëriñ Saliou Tine wala sëriñ Gora Thioune ku ciy jël kàddu mën naa ñëw su noppee waa France ñoo ci topp sëriñ Sidi Diop wala sëriñ Cheikh Diouf ku ci jël kàddu wala sëriñ Assane wala xam naa nga xool kuy jël kàddu kon ci waa France segam yow da nga nekk France nekk Espagne bi. waaw sëñ sëñ Cheikh. waaw sëñ waaw. sëñ Cheikh Diouf jël kàddu waaw kon ñu déglu waa Uruguay sëñ sëñ Saliou Tine.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 yebal ko fi moo sëriñ góora cuun xam naa ñun nag fi ñuy féetale suñu kàddu ci leeral dëkk boobu ndax mel ni ki ah, biñ ñëwee ñun sëriñ Afia Bousso moo ñu indi ci otoom ndax miinu woon jataay bi ñu ngi fiy soog a ñëw ñu fekk ko biir jumaa ja mu indi ñu ba ci biir kër gi ñu fi lañ añee yàgg nañ fi lool ah, ba dëkk boobu yi daa mel ni laaj na ma ndax dëkk boobu am nay taalibe sëñ Tuubaa dëkk boobu mu ngi koy soog a dégg mel ni kii jëwriñ di ko doon jottali dafa mel ni ki xawoon naa juum ci boole ko ci Europe te bokku fa kon ñun jot nañu leeral dëkk boobu fana ndax seeñ nañ ci e, daayira Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne ci jumaa yi Sëriñ Tuubaa bi la kon dëkk boobu mënatut a ndax sëñ bi wax na ne euh, euh, sëñ Afia Bousso moo ko doon leerlu kon des na ko ko leeral bu baax a baax dëkk ba motul ñaar fukki nit dafa nekk dëkk ba kon moyees na ne boolem dëkk yi nekk fii moo fi gën a ndaw ndax 3 millions habitants moo fa nekk waaye ñaar fukki nit ñoo fa nekk boo ci génnee taalibe yi sëñ Tuubaa fukki nit a fa nekk waaye nag daayira duñ ko manqué ñun dañuy teew daayira Touba ca kanam boo leen fëggoon laaj leen di fa gis ñu participation ndax ñun sax wutaluñ ko ah, at mu jot kenn ku si nekk def mille mille mille muy douze mille ñun dañuy def dimanche bu jot ñu joxe chaque ñaari weer danañ yónnee ñaar fukki junni yaakaar naa Touba ci kanam ah xam nañ loolu ah, naka noonu it dañuy yónnee ci euh, hadiyee Sëñ Tuubaa bi fi toog ki fi toogal Sëñ Tuubaa mu xaddimaatal xidma bi bi nga xamante ni Sëñ Ndongo yëg na ko ah, moom itam da caa sóobu ci at yi ci ginnaaw nga xam ne ak kees lañ ko wutal saa yu koor ñëwee ñu joxe sunu hadiya ba mel ni ki ñeenti ci diaspora ñeenti réew yi ñu wax ne ñëw nañ ah, ci lañ bokk kon sëriñ Touba ah, ku feeñ ci mbiram rawet na ci jumaa ji doo làqu kon nag ah googu ñi gën koo xam fii ci Uruguay lañ ko xamee ñoom bu dee fii senegal Uruguay lañ ko xam waaye bu dee côté fee Latini ba Uruguay lañ ko xamee kon nag jot nañu xamal sëti ah, sëñ Touba yi fi toog am nay taalibe sëñ Touba yoo xam ne bariwuñ fële waaye seenu daayira bopp lañ fa yore te yàlla seeteen fukk nit lañ fa waaye bëgg nañ ko Sëñ Tuubaa ndax fañ nekkoon a ah, dañ fa doon luye ba si yàgg ñu jóge fa nekk kër jëwriñ addee ji ñu doon joxal Sëñ Tuubaa bàyyi wuñ ko dañ koo continuer ngir bébét am kër Sëñ Tuubaa te fukki nit lañu fukki nit kon nag Sëñ Tuubaa moo moo moo moo moo waral loolu ah ñiy sàkku ci yéen ngeen ñaanal jëwrin ja Sëriñ Ndongo ak mbooleem ña nga xamante nekk nañ fa yëpp Ah, loolu ñu ngi koy leeralaat sëriñ Afia Bousso di ko leeral sëti sëriñ yi ña xam fi ña xam ne daal ah tuuti nañu waaye sëriñ Touba ndawam du tuuti képp ko bëgg a bëgg liggéeyal te liggéey ga dëggu ci yow rek ah du tuuti. kon ñu ngi jéggalu bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi jéggal ndax ñoo fi gën a ndawee waruñu woon sax jël kàddu waaye ndigal la rek te faaw ñu jëfe ko waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf doon wax ci turu waa Touba Uruguay kàddu yi pësteeku na te am solo tey yaakaar naa li nga wax it mbokk yi dégg nañ ko waaye liggéeyal Sëñ Touba moom euh, lu ca waay duggee rek noona nga cay tooyee maanaam tuuteeg bëree ci am waaye pas-pas rek moo ci am solo kon su ko defee euh, ni nga ko waxee tamit ñu gën a bàyyi xel dëkk bi euh, fi mu nekk muy Amérique de Latine nekk ci boori Argentine ak Brésil. Euh, ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen di di nuyu it sëriñ Gora Thioune mi ngi àndal kon sëriñ sëriñ Cheikh Diouf mooy wax ci turu fédération France yëpp kon ñu jox la kàddu auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakatu mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu di jox nuyoo beeg siyaara bi suñu affaire mu jot ñu ko suñ Muntaxa di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di ñaanal mboolem membre yi waa Moukhaddamatoul Khidma xam naa day mel ne ren moom moom. soññee lu ma yomb ndax daa mel ne bunt yoo yi ñu war a fëgg ngir soññee ci yëpp maanaam jaar nañu fi waaye day mel ne man fi ma féete moom ren jii soññee yi ngeen sonnee soññee yëpp euh, noo ngi ñaan ñu jottali ko mu àgg France ndax day mel ne ren jii moom nun waa France ci ñi gën a doxe di ci eh, daayira bi ci lan bokk ndax day mel ni boo xoolee eh, maanaam réseau Wande rek moom daanaka moo ñëw ci ma ci ci ci fii ci ci ci ci ci ci daayira bi ren te li fi ñëw néew sëñ Asan mii moo moo moo moo ko dox kon day mel ni moom France moom wax dëgg yàlla ren li euh, leen dal maa ngi ñaan suñu borom mu teggi ko forage hmm? ah. def na ci ah. <laughs> waaw waaye forage bi doomu beneen liggéey la. waaye kon daal maanaam gannaaw day mel ne yeneen yu yees feeñaat na yuñ war a taxaw kon nag France moom maa ngi ñaan ñu lii ñëw moom ñu mën ci. maa ngi koy sàkku ci képp koo xam ne yaa ngi ci France di ko yalwaan ngir yàlla rek su ma ko dee yalwaan nag yéene sama bopp ak waa France yépp taw féexi sëñ bi kenn bañ leen ci ëpple la ndax ni ko ñépp waxe liggéey bi moom fii kenn ëppale ko ci liggéeyal sëñ bi fii kenn ëppale ko ci kon nag képp koo xam ne yaa ngi nekk France maa ngi gën a yalwaan ñu gën a sóobuwaat ci liggéey bi xam naa su ma sañoon daal nu jaajuwaat mat na ko lool ndax liggéey la boo xam ne lu ci waaye def rëccu rëccu lu ëppoon lu tey nga def lu ko ëpp rek mooy moom moom nga ciy rëccu kon nag maa ngi sàkku ci waa France di leen gën a soññi fédération bi ak mboolem jëwriñ yi nekk France jëwriñu kër sëñ Tuubaa gi sëñ Modou Fall Kebe xam naa daa mel ne daa am xew-xew bu mu dem Ndakaaru ndax joor naa ko jot ci suba waaye looloo tax mën naa am looloo tax teewut kon maa ngi leen di soññi ñoom ñëpp ñu suubuwaat ci liggéey bi maa ngi jégalu nag xam naa xol bi moo xaw a <laughs> fees ren waaye noo ngi jégalu yëpp rek asalaamaaleykum wa rahmatullah kàddu yi am na solo te postéewu suñu asan moom dana ñuy jot li toujours sag pas-pas ak sa yéene ak jëf ju réy joo xam ne da koy def te bëggoo kenn ko xam ci liggéey bi kon ñu ngi lay sant bu baax a baax di sant it bokki France yëpp rawatina waa Toulouse ci jëf ji ñuy jëf ngir forage bi am bàq ya ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm su ko defee xam naa ne genn kàddu rek moo ci des muy kàddu waa Espagne euh, suñu àddi nag moom sagam day jëwriñ xam naa ne di kilifa jataay bi moo tax sax ñu ñu ne nañ ko mujjee jox kàddu ngir bu ko defee mu mu tëj ci kàddu yi su noppee ñu doog a jox Sëñ Abdou Lahad Muxtaar googu moo ci des suñu ñu ngi lay nuyu euh, di nuyu tamit fédération Espagne bépp jiital suñ sëñ Mbàkke Njaay waaye sëñ Baye Dame Lo mu Cheikh Moustapha Karim ak sëñ Alaaji Abdou Njaay jëwriñ waaye nuyu ñu fi teew it sëriñ Modou Gueye sëñ Fallou Dia ñoom di ay jëwriñ yu posteefu ci liggéey bi sëñ soo wootee sëñ Fallou Dia mi ak dëkk ba mu nekk dëkk ba mu nekk wax yàlla ñu ñu farlu ci liggéey bi lañ waaw muy Sarvera ak di di Sona ak dëkk yooyu yëpp ba ci Lerida yàlla dogal na moom dem naa fa ren ji waaye ñoom wax dëgg yàlla ñu ñu pasteefu ci liggéey bi lañ ñu ngi leen di sant di leen gërëm di nuyu tamit seriñ Xabbaan Ñang mi ànd ak suñu Fallou Dia moom it bokk ci liggéey bi ndax daayira ministre métal yi muy xidmatul xadim eh, kenn ku nekk xam ne ne ci jëwrin yi la bokk te ñoom <clears throat> tamit liggéey bu rëy la ñuy def ci jumaa ji ndax bunt yi nga xam ne mooy bunt yi aju ci wàll weñ yépp lu ca yàqu ñoom ñooy jaaju ñëw defaraat kon ñoom it ci liggéey bi lañ bokk te te te te wet googu it dafa munta ñàkk kon ñu ngi koy nuyu moom it kon suñu aad man mën ngaa toog noonu sax wala bu fekkee jóg gi yombu toor ndax boo mënee ñëw it nga ñëw nii comme jël kàddu ci turu waa Espagne gépp bu defee dégg nga kàddu yi fi yi fi teewaale ñu ngi nuyu tamit waa Malaga sëriñ Xaasim Jaw doon na fi tàggee mbokkam mu nelaw muy sëñ Xaasim di turandoom sëñ Abdou Lahad mii demoon na ci teewal fa daayira bi kon ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax ñaan suñu borom yërëm ko te xare ko àjjana moom it déwrin la joo xam ne day jàpp ci liggéey bi saa su nekk kon sëñ Aliou jeexee rek su noppee xam ngeen ne tamit gàmmu dañ cee am ndigal gàmmu dañ cee amoon ndigal lu rëy rëy yoo xam ne sëñ Saliou moo ko digaloon te fii may wax ak xam ngeen ne gàmmu gi daayira Muxaddamatul Xidma di taxawu fii ci penc bi xaw ko ku fi fanaan a guddi waaye ku ko mos moom yaakaar naa doo gàmmoo faneen te xam ngeen ne léegi àddina bépp a ngi roy ni ñu gàmmoo ci jamonoy nawet nag lañu nekk te munuñoo ñàkk gàmm moom faw dañ koy def ba ba ba ilal abad kon baas boo xam ne dañ ciy dugg gàmm ba gàmm gi jeex te ngelaw ak taw du ci man dara dafa mënta ñàkk daayira bi am ko fi ne dañuy fexe nag ba saa su jibee ñu fexe ba am mbokk taalibe mu ñu ko defaloon daaw fay ci cinq millions cinq cent mooy bâche yu mag yooyu kon loolu it dafa bokk ci yi nga xam ne euh, am ko munta ñàkk waaw kon signal yi ñu jox la kàddu gi waaw bismillah isaani naa wax jëlaani safiaan masin ibrahim ñu ngi leen di nuyu siyaara ñu leen di balaax leen balaax di jiital ci nuyoo bi saahibul fadilati Cheikh Mouhamadoul Mountakha di ñaan sunu borom dolli ku wéral ak kàttan gën ko fee yàggal ak mboolem njabootu Serigne Touba gi topp ci gannaaw di nuyu al imaamul akbar Cheikh ak mboolem ñi ngi xam ne ñoom ñoom laa nekkal fii ci toolu Serigne Touba bi nga xam ne ñun ñëpp ci lañu waroon a xëy di ci gont gannaaw loolu ñu ngi nuyu waa jataay bi yépp mboolem réew yi nga xam bii ne tudd nañ leen fi ñu ngi leen di nuyu di nuyu it kilifa daayira muxaddamatu xidma yi toog ci turi Cheikh Abdou Lahad yi ak ñu leen jàpp jàppale ñëpp sëñ Fall bu sa ñoom ak sëñ Mbàkke ñoom ñëpp rek ñu leen di nuyu nuyu sëñ Assane Diop di leen nuyu ci turu fédération mondiale ndax euh, léegi bi may toog sëñ Seexu Naakat mi ma àndal daf na ma ñii ñana fédération Espagne man ñi koy mondial lañ euh, li tax ma wax ko nag dafa am lu feeñ ci biir loo xam ne euh, moo ma ci gën a yéem mooy li Cheikh Abdoulaye waxoon ne ak murid nekk fenn kenn ak mu nekk fa junni ñoo war a yem lu ñuy def ndax mm, sëñ tin mii doon wax ci turu Uruguay yaakaar naa fa seen dëkk mooy La Paz mu juumul ne fukki eh, jëwriñ lañ fa kon yéen dangeen a mel ne da ngeen a bëgg ubbi mondial bu bees monde bu bees comme ni mu ubbi ko Argentina ubbi ko Brésil ak Chili ak Paraguay ak dëkk yi sowdo américain yooyu yëpp kon yéen dangeen a war a gën a ubbi ko bu baax ci seentu gan ñi ndax kat bu fekkee da ngeen ne ci gor bu bees ñu war a faa liggéeyal Serigne ah, te ñu gis ne européen yeeg ñëpp ak mbë mbëkkum gaal ak yooyu fi nekk suñ gisee fu bees foo xam ne yaakaar nañ ne mbooloo mën na faa dem di fa am teraanga di fa liggéeyal Serigne Touba di ngeen xam ne bii ne kon yéen ngeen a war a ñu ngi leen di ñaanal bu baax wéet googee ngeen fu wéet ci tàmbali ndax man damay wax ne mépp mbooloo mu ñu woote. mu fees dell dama ne accam lii di yàqu waaye buñ ko wootee mu tuuti damaa moom ca kanam la jëm Tuubaa gii bi ko sëriñ bii sañ moo ñu néew waaye ñëpp gis nañ màggal gi mbooloo bi dajee ca ngoon sa rek la nit ñi ne tasar te ay benn benn lañ doon ñëw waaw nag amatuma lu may wax ndax tawat yi ñun ñëpp dégg nañ ko jëf yi tamit ñun ñëpp dégg nañ ko li ci des nag mooy na sax ndax dama waxoon fii ci korog bi ñuy def maanaam ngénteel añ yi daal laa ko mën a tudd ma ne lii bu yemee ci benn doomu aadama ak ñaar mën naa am nit day dem waaye daayira day sax kon fu waay ne ci daayira bi tàmbale ko ca La Paz googee ca Uruguay ba ca Mali giñ naan gars yi dañ koo teggeeg fu mën a doon bu waa daayira ba jàppee fële laal am day dox Espagne de bokk nañ ci waaye faranaka ay benn benn nit ngay tudd dama ne ko woon Assane lu ñu am rek joxe leen ko muy nangami añ ci turu daay ci turu fédération Espagne ñu nuy waa fédération bi sëñ Mbacke Ndiaye Alaaji Abdou Ndiaye ak ñëpp kon ñi fi teew ñëpp ak ñi fi teewul nañ xam ne liggéey sëriñ bi lu jëm ca kanam la ñun nag ñoo fi indi ay wax ak i jëf ñun ñoo tudde sëriñ bi amul tànki gannaaw kon ñoo fi indi sëriñ bi ne li yëfal ca kanam la jëm kon bu fi kenn tàmbali loo xaay li dafa nga ne day deltu gannaaw lii sëñ Diouf doon wax ci France déedéet dama yaakaar gars yi dañoo arrière rek kiir ngir mieux sotte incha allah loolu laa yaakaar man du ma layal kenn nag xaw ma sax France yaakaar naa benn guddi laa fi ma taxaw te def naa léegi ma def ñeent fukki at ci àll bi waaye dafa deme ne nit ñi looy def te yàlla tax da nga jàpp ne lu jëm a yëm kanam la gis nga li ñuy wax ci muxaddamatul xidma am na beneen liggéey boo xam ne ñi ñu koy defal ci koor gi yéen ñëpp laa ciy soññ bu koor gi dikkatee ne ñëpp yónnee ci social bi ànd naa ak sa ñëpp laat mii mu tàmbalee daaray kaamil gi siyaare naa leen léegi ci moom imaam yi noddkat yi sëwóor yi waa bàqee waa usulul ma guy bilaal yi fi newoon ba tëju ba mënatuñ waa daarul mahrifa balekat yi suñ fallu ya ñépp tànki neen lañ def maa moom ñu weeru koor ñu départ deux heures wër ba jant soo fu dem joxe fa enveloppe te liy jógee ci koor gi lañ ko def ma waxaat ne ku yokkul da ngay wàññi léegi nii seexu naa kan dama ne ko yokk wii di lañ daan dogoo daaw nag tourné nañ ko ci soow tourné ko ci gànnaar kon su may tuuloo ren ci penku jumaa bi lay jëm ah kon loolu dafa wam loo xam bu kenn jàpp ne e, joxe naa ci màggal gi wala def naa lii déedéet waxtu wu ne dafa war a am ndimbal yuy ñëw wala addi yuy ñëw jëm ci mu muxaddamatul xidma ndax lii ñuy wax naan joxe nañ téeméeri ajjuma yu teg ñeent wala fukk sàng sax bii gaa yi busu busu yu joxe dafa ne xanaa ñi moom dañu roy sëñ Abdou Samane Mbàkke wala màggal gee neex ñoom ñu yàgg <laughs> ñu baal na noonu ñu ko defee dañoo gis ne liñ leen laaj mën nañ ko te fi ñu koy def xam nañ ko ndax ñoo yan woon añ bi ñoom yanoon nañ ko fi lu mat fukki at ak juróom-benn ñaar fukki at kenn xamu ko te nii ñu ci jaajoo daawuñ ko jaajo sëñ affaire may dégg maa ne gars yi dañ daan dajale ni nañ ay juróom ay fukk def nii ni lim tàmbalee lépp xam naa ko ndax wax nañ ma ko koroog ngénte la lépp gis naa kon nag comme ñoom ñooy jaaju nii nañ xam ne bii ne ndegam ka ca ñu walla waa dee xaw ma ñoo daanu ci xaw ma la pind ñu ko wala di léebi ndegam waa biir jumaa ji nga xam ne bii la ñoom te ñoom nii kat dama leen di waxal añ yi li muy bari bari li muy neex neex koo xam ne kii ne sa kër soriwul jumaa ji fukki kilomètre doo ci musu fépp waaw dégg nga daayira bi koy añ ak yooyu xaw ma Bambey la ñuy jógee xaw ma nu ñu fore lañ doon dikk yendoo bale yendoo bu te waxoon naa leen leen tamit nag añ bi dafa war a yokk quatre-vingt mille waxtaan wax dëgg ca la ku gis léegi fii taux yi Euh, bu ñu ko passé ci quatre vingt mille jërul ñuy lim mille ajjuma sëñ Abdou Hakim sëñ Fallou yéen a ngi gii yéen ñi nga xam ne bii nii yéen tàmbali gii yéen yéen ay jóge ci quatre vingt mille dellu quarante mille dem ci cent vingt ndax su ko defee ñu mën a xam ne yëf yi day doy du dëgg kon nag li may soññ sama bopp di ko soññ fédération Espagne di ko soññ fédération mondiale bi Europe Asie Amérique Afrique ñëpp ñoo ci bokk yem te yëf taxul yëf yee ne fi joxe ko taxul mu dem du dëgg Abdoulaye Kimbay mais quatre-vingt-douze treize euh, sama ndongo la woon ci biir Palma de Mayenne ba léegi bu ma demee Palma Angleterre mooy suma jëwri léegi maa ngi koy nuyu sa waay daal man ndax sa doom ma ne ko déet euh, xam naa daal am na lu ma def ci moom ak ñeneen ak ñeneen te léegi li mu wax sëñ Fallou Diop suñu mag gi wax ko ñëpp a ngi leen ciy roy ñoom sëñ Ousmane Sow ñii li ma ko dégg te dama waxoon bis ci fédération bi ne fédération bii nu am wala daayir bi ak ndaje mi bénéfice ngi ci Abdou ak Kimbay ku ko jox xoon 3 millions wala cinq millions ne ko paasal di wër jëwriñ yi nga xam dana jeexal te du leen xam te léegi tey daje nañ xam na waa Mali xam waa Portugal xam waa fee xam waa bee ñëpp xam ko kon njariñ li mi ngi ci biir mbooloo mi te mbooloo mi xajuñ ci kaw dara du dëgg teraanga yi ñu fi gis Seex Aafiya def ko fi wóor na ma ne bu ko jaayoon mi junni yu bari la te laajul kenn dara tëlutu sax a julli ji ah. di ñu woo ci bis bi at mu nekk kon nag nan gore mooy liy gore gi mooy yitte yi sëriñ bi bëgg nañ suñu yitte forage bi ñuy wax atam bi ñu ko fi waxee ab oto lañ waxoon ma ne tee ngeen wut laaj place wutub forage yàlla dogal na am nañu forage dégg kon léegi oto yi ci des réew yaa ngi fédération yaa ngi fi Portugal ak Espagne ñoom bu ñu neexee ñoom mën nañoo fédéré engagé oto oto ndox wala oto manque wala ambulance ak oto fédération Afrique mën nañoo booloo ak sud amérique bi comme bëriwuñ ñoom it ñu engagé benn oto fédération France ak Italie jëri engagé ba ci lu facile la pour di pour def ko doxaliin wi rek moo fi nekk kon nag nañ jéem a xoolaat suñu bopp xale bii ni nag yan bu gudd yoon bu gudd yan bu diis baaxul ñii sasuñ ñu dara dañoo nekk ci tool bi nga xam ne ñun ñëpp ci lañ waroon a laxasu nekk ñu nekkal ñu fi guddi ak bëccëg lii ñu wax ne dañuy doxaale ci réew mi di dugal suñuy programme di ci bokkaale liggéeyu Muxaddamatul Xidma su ma juumul Assane 87 wala 9 lañ tàmbali woon Espagne balay jumaa ji ak di ko di ko di ko setal booba sëñ maxtaar lañu fi doon fekk ak Baye Njaañ ak ñu mel noonu am naa moom sëñ maxtaar daf ne lii ngeen di indi de bu ko sëriñ Touba nangu wutoon du yegg si jumaa ji kon na leen wóor ne ñun ñi ñëpp li ñuy def sëñ Touba da nangu te ko jaarale fii ji daayira bi ñu dem ba 94 wala 15 la sëriñ Saliou dóor a tudd daayira bi mu xaddimatul xel muy gën a jëm kanam ma jeexale ci tuddoon naa weeru koor bi kon at mu jot ñuy invité waa Espagne walla waa France ñëpp ak kilim doomi Sëñ Tuubaa yëpp ak njaboot gi ak seex yi ñuy ñëw di ndogu si fii te ku dogal benn nit ab tàndar mu woor ba ngoon am nga tuyaa ba ju toll ne la mu woor te moom la mu yor du ko yàqal dara te ñoom daaw fii rek 2023 bii la woon koor gi de liñ doon liñ doon dogal romb na ñeenti junniy nit te kenn ku ci nekk ndogu la ngay tiim moo dàq la ci sa kër kon nag war na sant bu baax a baax li ci des nag moom mooy ñu ñaa sàkku ñaan taalibe yi nag dañoo war a wér péng yor lu bari wér di liggéeyal Serigne Touba yor lu ñuy joxe ñu nekk bitim réew waa Turkaay waa Espagne di tawati kayit na ko sunu boroom jàppandal ndax fekke démb bu fekkee tey am fulla jafe na toll woon nañ jamono yoo xam ne daayira yi ñuy wax ci ab néeg lañ ko tàmbalee waaw tey bu ñu waxee Italie ñu ne fukk kër Serigne Touba nga fa ak juróom-ñett wala lu pilis boo faa gën a seer Uruguay moo gën a seer Mali Espagne lu ëpp looloo nga fa ak feneen ak feneen te taalibe yi dong ñoo ko fa def te kër yi jëriñu leen daara su mbooloo dajee dañuy génn wuti ab saal wala ñu wuti fuñ daje li tax ma wax ko nag néewuma bu kenn wut kër gu ndaw wala kër gu mag Touba gii dama ne gouvernement bi ak waa tuubaa ñun dañoo xaw a am fu ñu échec dañoo xeex ci lu bari li ci des ñu yolomal ko neemalu mu màggal gi li muy rëy rëy rëy kenn du ne la dama xiif kenn du ne la amu fu ma tëdd kenn du ne la kenn gàttanduwuma waaye fu ñu naan ndox waaw xo doon waa Sénégal te mënul leen a boobu màndal moom fu ñu ko teg kon dañoo war a am fulla joo xam ne kenn ku nekk bu munta am oto sa kër mu jaral la nga def base boo xam ne bii ne wóoree bii moom mooy ëpp saal bii nga duy ko ndox ba mu fees tëj ko ne pour màggal dootuñ ko laajub seet na dootuñ ko laaj kenn te benn yoon nga koy def mu jeex kon nag nañ fexee wuggi waa Sénégal ndax Touba manqué ndox waa Sénégal la ñëw naan si ndox mi jamono yi sëñ Fallou jamono yi début sëñ Abdou Lahad ku màggal ci woon fii man am na at moo fi njëkk màggal si passion yi rek na ma dooyu ni baal waaye booba rago yi ñu teg ci mbedd léegi yooyu dama ci doon tiit waaye léegi fi dool nii fa daanaka la séeréer boo mën naa koy séddalee aw dàll fa fi fa ñu ngi koy waxee wéq ay bool yi naan jël leen wala kaay sarax ma lekk noonu ñu Serigne Touba wane saayir ci fii baatin ba noonu la rawee na seen xel dal lii ñu fi sëñ Afiya séeréel jàll na sor dàlli weñ di daw ba mu rab ngir am ko te tegu ko ci bakkanam soxlawul lu ñu neex ndax moo ñu ëpp xam-xam moo ñu mag moo ñu ëpp wërsëg gën ñu gën ñu ay wayjur gën ñoo dëkk ci dëkk këram ak jumaa ji booy sànni deux cent mu yegg kon nag bu taxawee fii naan mi di sant ci suñ jëmm yi yàlla nañu yàlla defal loolu ñu ngi delloo sant bu baax nag wax ji gudd na waaye daal ah bu ngeen fi jógee daal na kenn bu nekk xam ne bii nii la defoon nañ ko def nii sànni ci gannaaw fàttali te jublu ci suñu kanam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu la ju mat jëwrin moom wax dëgg yàlla waaw moom day jëwriñ la ah, loolu mu wax de lu am solo la ndax wëgg waa Sénégal la def kon nag war na jël ay matuwaay ci luy mën a wëgg juróomi million loolu moo tax moom wax ji am na sol lool te ku mën a soññee la te ku xër ci Muxaddamatul Xidma la wax di yàlla ak ci liggéeyu jumaa ji daayira añu jumaa ji bi bi ñëwee eh, jaayante bi daayira salaam da koo jëlal ñaari añ joxe ko ak ñi nga xam ne ay rakkam lañ ay mbokkam mobiliser leen ngir ñu ngir ñu dugg ci waaw moom wax dëgg yàlla moom liggéey bi ñor na ko lool lool ñu ngi sant di la ñaanal ak wér ak gudd fan ndax jëwriñ la joo xam ne it boo ko fekkee fa mu nekk mu nekk ca kanam da xam ne loolu yit sens lay doon ci ab dëkk daal dëkk bu am jëwriñ ju mat jëwriñ moom sens la kon yàlla na yàlla defal tawféex ak taysir kon bu ko defee kàddu yi kàddu gu mujj gi moo ci des Sëñ Abdou Lahad Bousso Mokhtar moo koy jël ci turu daayira Muxaddamatul Xidma ngir tënk kàddu yi ak sant ak jaajëfal incha allah ñi ngi sant it waa Italie bu baax a baax ñoom it euh, ci màggal gi def nañ liggéey bu am am solo sëriñ Daaru ak sëñ Ibrahima si sëñ Ibrahima euh, si sëñ Ibrahima Sey ak sëñ Saaliwu ñoom ak sëñ Xaali ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di nuyu tamit sëñ Matar ji mi nga xam ne moo jiite fédération Serigne Touba bu Brescia moom it ñi ngi koy nuyu te di ko tàllal loxo ci liggéey bi ndax euh, Italie tamit li sëñ Cheikh Diouf doon wax léegi Italie moom dayre yi wuy si wuy dese nañoo wuy si ci liggéey bi maanaam ay nit yi individuel ñooy ñoo ñoo ci ñoo ciy jëf Euh, mën nañ ci ràññee rek Toscana ak liggéey bi nga xam ne fédération Veneto defaloon nañ ñu ko muy machine bii ñuy fóote tàpp yi waaye bu dul loolu dem nañ ci dëkk yëpp ànd ak sëñ Maam waaye dese nañ cee wuy si ba kon nag sëñ Matar kànj yow mi jiite fédération bi ëpp doole foofu te sëñ Mbàkke Buso di sa sëriñ te sëñ Mbàkke Buso natt jumaa ji jubale ko xibla war ngaa wane aw yoon nag ci jumaa ji kon ñu ngi lay tàllal loxo bu baax a baax a baax waaw waaw fan yi tàbbi na ci biir liggéey bi te jaarale ko ci Abdou kon sëñ Matar Kandji boo gisee vidéo bi it ñu ngi lay jaarale ci yow kàddu yi ngir nga jottali ko jëwri nii fédération Brescia ci yi ñu fi wax nii xam nañ ne doyu leen nga laxandiku ci bu ngeen ci jëlee benn ñun xam nañ taalibe Italie ni mu demee kon nag ñu ngi leen di soññ bu baax a baax kon sëñ Abdou kàddu gi yaa koy tëj ñu jox la kàddu bismillah inna waliyallah wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa qadimihi wa mawala assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sunu bokki jullit yi di sunu bokki taalibe ñoo ngi leen di nuyu ci turu daayiratu muxaddamatul xidma ci kàddu kilifa yi teew yi nga xam ne teewunu ngir gàdd di rafetlu lool jataay bi ak kàddu yi nga xam ne moom lañ fi dégg di ci am mbégte lool itam di ñaan suñu borom mi nga xam ne moo am kàttan tey def di dindi mu may ñu yàgg koo daje lool te nangul nu liggéey bi nga xam ne moom la ñuy liggéeyal Serigne Touba te mu boole ñu ànd bu ne am na solo waaye ànd bi ëpp solo ci ànd yi mooy ànd boo xam ne yàlla rek a tax ñu di ko def ngir jëmmi Serigne Touba te mooy ànd bii nga xam ne moo fi dajalee mbokk yi tey barab yi ñu bàyyi koo soree na lool jëmm yi tam kenn ku nekk sa yitte doy na la sëkk xat nga lool waaye ñëpp dañoo bàyyi seen yitte euh, teew ngir jëmmi Serigne Touba waxtaane li nga xam ne moom la bokk te seq ko. te war a di yëgoo di ci ànd di ci jëfandoo danañ dëkkaat tuuti nag fàttaliwaat li ñu boole mooy lan mooy liggéeyu Sëriñ Tuubaa ci daayiratu Muxaddamatul Xidma ana lan mooy daayiratu Muxaddamatul Xidma mooy daayira bi nga xam ne moom la sunu borom baaxe ci ndigalul Sëriñ Tuubaa ñu amee taxawaayu barab bii nga xam ne moo gënal sëriñ Tuubaa ci barab yépp waaye moo nekk ci xolu murit yépp muy jumaay Tuubaa ji ci gan am na lu ma fukki taxawaay ba fukki taxawaay ak benn yoo xam ne sëriñ bi dénk na ko daayiratu Muxaddamatul Xidma bu ci nekk nag am na yu ca sosu sow solu sofu yu baree bare bi ci njëkk nga xam ne ci la tàmbalee mooy cetu jumaa ji cetu jumaa ji ak li wër jumaa ji te xam ngeen ne barab boo xam ne ëpp na trente mille mètres carrés la koy setal du ay caaxaan te lépp doon karo te li ëpp ci ñi ciy dox tànki neen lañ ciy doxee rawatina fu mel ne nawet kooku ak setam ku ko jàppale waaye fit xamoo barab bi ni mu yaatoo kon cet gi foofu rek lañ koy tënk waaye cet gi dafa am ñu mu àndal cet gi dafa ànd ak leeraay gi ak yeneen ya ca aju muy làmp yeeg ventilateur yéeg yeneen yee ca aju yépp te mën a duggaale ci biir loolu lépp day duggaale ci biir cet gi loolu rek doyoon na ab liggéey boo xam ni bu diis gan gan gan gan la ndax yaakaar naa ne juróom-ñaari bis yi am ci semaine bi muy li tàmbalee dibéer ba gaaw amul benn bis boo xam ne du mbooloo danañ xëy si ci jumaa ji bale ko ba mu set wecc raxas ko ba mu set wecc juróom-ñett juróom-ñaari fan yëpp ci semaine bi loolu liggéey bu rëy la bu yaatu la bu diis la waaye Serigne Touba mi ñu koy liggéeyal jàpp ndal na ko léegi ba bis bu ne am na ñu war a xëy si ñoo xam ne ñoo moom bis boobee yii ñan na koy def yii ay mbooloo yu dajaloo ñoo koy def ba mu doon semaine bi yëpp semaine bi yëpp xanaa alxames te alxames it ña koy def ñooy ñun ñooy ñoom ndax mooy asxaabul na mbooloo mi ngeen di gis fii moom ngeen di gisaat ci biir asxaabul na mbooloo mi ngeen di gis ci biir asxaabul na moom ngeen di gisaat fii ñenn ñee euh, kon jatug jumaa ji moo ci jiitu nosug jumaa ji topp ci nos gi mooy organisation bi ci julli yi ci sàppe yi ci taxawaay yi rang yi siyaare yi ci màggal yeeg yeneen yu ñu demee ak lépp loo xam ne rek wàllu organisation la ci biir jumaa ji loolu moo ci topp ba ci toppaat mooy ormay jumaa ji ak ormay penc bi foofu yu bari ci ay ndigal ñëw na fi ormay jumaa ji ak ormay penc bi yaatu na lool bokk na ca njaay mi ngeen daan gis mu mel ne am marché ci penc bi waaye muxaddamatul xidma la sëriñ Saalihu joxoon ndigal ñu jëlee ko fi ñi fi daan géew di diiwaan di wax lu leen neex daayira muxaddamatul xidma la sëriñ bi joxoon ndigal ñu jëlee leen fi ñi fi nekkoon di yalwaandikat nit ñi ko coow donte am na yu des ci bitti ba léegi waaye danaan egg ci biir jumaa ji ñooy sëriñ bi daayira Muxaddamatul Xidma la jox ndigal ñu jëlee leen fi oto yi nga xam ne dañuy sëb sobe muy oto yi vidange yi daayira Muxaddamatul Xidma la sëriñ bi jox ndigal ñu di leen teggiloo sareet yi fi daan jaar di fi wàcc ay naf rek yeneen yu ñu demee daayira Muxaddamatul Xidma la sëriñ bi jox ndigal ñu dox seen diggante ak loola mbooleem xeeti loo xam ne rek luy wàññi war may barab bi la ñu nga cay taxaw seen kemtalaay kattan ngir loola jóge fi naka noonu taxawaayu barab yi barab yi mooy armeel yi ak bàqiyan taxawaay yooyu nag dafa nekk ñaari taxawaay benn bi taxawaayu organisation la taxawaayu organisation mooy nii ngeen gise léegi te ba organisé boobu nag ndigal la loo xam ne mu ngi tukkee woon ci Serigne Saliou ndax moo waxoon ne ku fi ñëw na ngeen xam foo mu jógee xam lu ko fi indi xam lu ko faat xam fañ koy def loolu yoon bi lu mu gudd gudd gudd gudd ak lu ci bari bari bi laaj yooyu coono yeeg këyit yeeg nangam lii ñu Serigne Saliou digaloon ku ñëw nañ xam mooy kan moom ci boppam ana ñan ñoo ko fi indi fu mu bàyyi ko lu ko faat fuñ ko denc lii rek la mooy organisation bi du gudd gàtt ak yi këyit yeeg laaj-laaj yeeg li muy bari bari lool dong la bu lépp leeree rek day yomb lool kon ba taxawaayu barab yi ci wàllu organisation mooy lool waaye mu des beneen taxawaay itam boo xam ne ci wàllu euh, xam-xam la mooy ña fay def la ñuy def nan lañ ko war nan lañ leen war a taxawoo ba mu dëppoo ak lislaam mi ko santaane nan lañuy ñuy sàngee ñay ñay ndax seenu sàng mi ngi aw yoon ñay denc ñay gas ndax seenu gas mi ngi aw yoon mi ngi jublu xibla wala déet ñay ñaw càngaay ndax la ñuy ñawee càngaay moom la ñu war a ñawee càngaay wala nu ñu koo ñawe noonu yooyu yëpp itam dañ leen defal formation boo xam ne yooyu yëpp ca lay bàyyi ko bu ñu leen defaree formation bañ man ko ñu jox leen màndarga mu wane ne ñii mën nañ ko ñoom ñu nekk fa di ko def loolu ab liggéeyu biir la boo xam ni daayira Moukhaddamatoul Khidma mu koy taxaw ñaari taxawaay taxawaay formation ci wàllu xam-xam ak di leen siiwur nag ndax liñ leen jàngalu ñu ngi koy defee noonu nañ ko waxee woon wala déet ak taxawaayu organisation te moom it organisation boobu moo wax cat barab ba ca la bokk mooy loolu buñ ko seetee defe naa dem na ci tudd naa ñeent ba juróom am beneen boo xam ne mooy juróom-beneel bi mooy taxawaayu taxawaayu dalal gani Serigne Touba yi waxuma màggal de dalal gani Serigne Touba yi nga xam ne dañuy ñëw di seet si Serigne Touba léeg-léeg léeg président dana fi ñëw léeg-léeg président beneen réew dana fi ñëw léeg-léeg ay ambassadeur dinañ fi ñëw léeg-léeg ay kilifa yu mag ci àdduna bi danañ fi ñëw. kilifa yooyu bokk nañ ci ñi nga xam ne sëriñ bi da leen di sant day sant daayira Moukhaddamatoul ma ñu di leen ko dalalal di leen ko teerul di leen ko dalalal ña ña ko sëriñ bi sant Moukhaddamatoul Khidma ca la bokk waaye ba tey itam am na ci bu juróom-ñaareel bi mooy wala juróom-benneel bi mooy taxawaayu màggal gi màggalu Tuubaa itam sëriñ bi sant na leen ñu bokk ci comité d'organisation bi amee ci cër bu am solo mooy mbooleem kilifa ak diine gu ngeen xam ci réew mi wala ci àdduna bi muy ñëw boo agsee daayira Muqaddamatul ma ñoo lay teeru ñoo lay dalal ñoo lay taxaw ba ba ngay dellu fii mu ne tey boo woowoon Sëñ Blaat mii mbaa nga woo Sëñ Blaat mais ne ko ñaata délégation ñoo ñëw ci màggal gi yu ñëw ci turu Sëriñ Tuubaa mën nañ laa wax ne le temps de délégation ñoo fi ñëw nangam yi nit lañ bii béréb sàngam la jóge bii béréb sàngam la jóge bii béréb sàngam la jóge ba lépp jeex taxawaay boobu moom la leen sëriñ bi di taxawuloo ci màggal gi teewul am nañ yeneen i taxawaay yu am solo yu ñu taxaw ci màggal gi bokk na ca taxawaay jumaa ji ci biir màggal gi dafa day mel ne dafa day yokk lu mat fukki yoon ba ñaar fukki yoon ndax ren jii rek wax nañ ne doon nañ liggéey loolu toll ci ñaari junniy nit ak ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom deux cent cinquante cinq personnes liggéeyloo nañ leen ci biir màggal gi deux mille deux mille deux cinquante cinq personnes hmm? mille deux cent cinquante cinq waaw yoo xam ne deux mille la suñu tool waxoon deux mille la deux mille la deux mille deux cent mooy ñaari junni ak ak ak ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom ñi ñuy liggéey lépp ñëpp ñi ñu liggéeyloo ñëpp loolu noonu la toll. ñooñu nag dafa séddalikoo ci ñii am na ñoo xam ne ñooy bale ci biir màggal li muy xat-xat dañuy bale di raxas am na ñoo xam ne ña ñooy toppatoo rang gi am na ñoo xam ne ñooy toppatoo sécurité bi ci biir jumaa ji ak li am na ñoo xam ne ñoo nekk ci ranga am na ñoo xam ne ñoo nekk ca waañ wa di togg am na ñoo xam ne ñoo nekk ca fajukaay ba am na ñoo xam ne ñoo ñooy sàmm ñooy nekk ci sécurité ci barab yi nga bu ñooñu sonnee yeneen aw leen bu ñooñu sonnee ñeneen aw nga xam ne ñii dañuy monte ñe juróom-ñetti waxtu wàcc ñeneen monte juróom-ñetti waxtu wàcc ñeneen monte juróom-ñetti waxtu ba fan yi màggal gi jeex kon taxawaayu màggal gi loolu bokk na ca teewul ñu bokk ci commission yi doxal màggal gi yëpp boo fa dem da nga fa fekk membre Moukhaddamatoul Khidma boo demee intendance boo demee commission santé boo demee communication boo demee foo dem dana fa fekk waa commune naka noonu ndogu yi nga xam ne moom lañuy def ci koor gi ndogu yi moom déeratul leeral ndax yéen ñëpp xam ngeen ko te dégg ngeen itam rapport yi nga xam ne moom lañ ciy def bokk na ci seeni liggéey formé imaam yi ak noddukat yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci jàkka yi ni ñu ko ni mu ko waxee woon léegi ci armée yi ak gàmmu gi nga xam ne itam moom la ñuy taxawal at mu jot te daan ko taxawal ci seen Serigne Saliou bokk na ci itam taxawal ay waxtaan yoo xam ne dañ ci jàngale nit ñi seen diine ak seenu bi lii boo ko xoolee toll na ci lu mat fukki yëpp ak ñaar yoo xam ne taxawaay la yoo xam ne daayira Muxaddamatul mu ñoo koy taxawee te benn bu nekk boot na yeneen yi taxawaay yoo xam ni moom la ñuy taxawee kon nag ñi ngi leen di sant bu baax ndax li sëriñ Afia waxoon léegi rek taxawaay yi yëpp suñ ko manee fekk na am na ñu nekk ci suñ ginnaaw di ñu jàppale ngir ñu mën koo taxaw ñooñu nag li ko sëñ bi waxe woon léegi mooy yéen ñii yéen ñii ma jàkkaarloo ngeen nekk ci bitim réew ak ñi nekk ci biir réew mi ñëpp yéen a tax loolu ñu man ko te kenn gisu leen ci kenn déggu leen ci dafa mel ni kon jëf ngir yàlla munte weesu lool wolof day wax ne feccum liir su neexee ndey jëmoote yi ca mbagg yi kon ndam luñ ci am rek ñoo yéene ko bokk waaye ndam lu ngërëm luñ ci am ci sëriñ bi itam ngërëm loolee da ngeen jël da ci jël seen wàll ba doyal kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax a baax di sant euh, sëriñ bi tuddoon na ko léegi waaye ginnaaw teewuñu ñu jottali leen seen cant bu baax a baax yéen ñi teew waaye di cot li cantum ñi yoo xam ne ñu dem teewuñu daayira Touba Sine ni mu ko waxee woon léegi bërki démb rek bi pare sol yi amee demee ba yu bari ngelaw yàq ko dajj ko dañoo dellusiwaat ne lu koy defar ñu wax ñu woo minise métallique yii woo tapissier yi ñu taxaw kenn ku nekk wax la nga xam ne moo koy war a defar ñu jaayante ngir defaraat ko ba mu mel na meloon donte yoonu siin yi ubbi ko carrément ne su ubbi ko woon carrément ni nga xam ne noonu la meloon démb ak barki démb lu jiitu tawat ji di am kon dañ koy yeesalaat jëndaat yu bees kon ñooñu it mat nañoo taxaw te ñoom sant leen bu baax. waa fédération Amérique itam fondation Amérique itam mënee su leen ñàkk a ak cant di di di di di di di di. waa fondation Amérique seen taxawaay rafet na lool ni ko sëñ Abdou Lahad waxee léegi at mu jot koor gi ak màggal gi ak gàmmu gi lu ci nekk danañ ci jàpp jàppin bu am solo bu rafet euh, cante gi nga xam ne nag moom lañuy ñuy jagleel ñi nga xam ne ñoo initié añi ajjuma yi cant googu moom ñi ma jiitu wax nañ ko ñi ma jiitu wax nañ ko ndax waxtu wii daaw lañ toogoon fii wax ko waaye bañ ko waxee teguñu ci ñaari weer ñetti weer ñu fexe ba mu jëmm soppi ko nii mu soppi koo léegi sëriñ xa euh, aadi wax na dëgg ku tëdd fa mburu tëddoon da nga xam la mburu daan daj kon xawma ku xamut nu yëf yi toll waaye noonu ña fa nekkoon moom xam nañ ni yëf yi toll waaye nag bu ngeen gisee ñu dem ba ñu taxaw ne ñu cee ñàkk jaayante ba ñun ñi ñëpp kenn ku nekk ne day jaayante jël benn dañoo bañ nag joxe ko toog loxoy neen ngeen jékki-jékki jël yëf yi yóbbu danoo bëgg nag yëf yi bu ñuy am bu bu bi fay fayaale nu loolu lañ bëgg bëgguñu ko ñàkk ndax danañ danañ ko def ba ngeen gis nañu lem ñu jariñ duñ ñëw jël ko ci ñun rek ñu toog loxoy neen di xoole bokkatu bokkatuñ ci bu boobaal lañ doon am fam daan lañ doon am de fam fam yemoon lay yem danoo bëgg nag bu ngeen di am ñuy am ñuy am ngeen di am mooy li suñ fa looxoon rek dañoo def ñoo xam ne ngottuñu te xatuñu itam danoo bëgg rek di am lu baax yéen yi ngeen di am lu baax ñun ñëpp ñu maase di am lu baax loolu mooy itte ji tolluwaayu forage bi itam ni ko sëñ Lahad waxee forage bi ñu ngi koy gas ba démb ci guddi bi ma mujjee jokkoo ak ki nga xam ne moo yor machine bi toll nañ ci téeméeri mètre ak juróom-ñaar fukki mètre ak juróom ñu ngi jëm ci téeméeri mètre ak juróom-ñeent kon mel na ne fukki mètre ak juróom a ci des euh, te teew jot nañ sax ndox mi waaye faawu ñu àgg fañ soxla ngir mu gën a am doole ji nga xam ne moom lañu gën a ittewoo mu nekk loo xam ne nag engagement bi ñu ci jël biñ ci jël ñuy biñ koy tàmbali teguñu ko fenn fu dul yaakaar Sëriñ Tuubaa ndax ki koy gas rek fanweeri million lañ ko war a fay bi ñu naan ko nañ tàmbali fukki million lañ yor yàlla xam na ne ñi nga xam ne ñoom lañ ko seqal dañ di ay tubaab dañ ne woon déedéet mënuñu ko tàmbali te amuñu euh, soixante dix quinze pour cent ñu ne leen nag mbirum Serigne Touba demewul noonu da ngeen di tàmbali lu ngay tàmbaliwut du àgg tàmbali leen bu ngeen tàmbalee du du garanti nañ ci sax loo xam ne teguñ ko fenn fut yaakaar Serigne Touba nag mooy du ngeen nu dab lu ngeen nu dab loola itam ña nga ca ba léegi di tàllal loxo ñëpp li ko war a liggéey toll na ci toll na ci toll na ci téeméeri mètre ak juróom-ñaar fukk ak juróom te liñ ngas tey xam naa ne bokkugu ci lu new ne war nañoo tellu ci téeméeri mètre ak juróom ñett fukk kon mu barab boo xam ne itam barab dëgëraayu barab bi ndax barab bi dafa am kew loolu moo tax mu toll fii mu toll ba léegi kon loolu mooy tolluwaayu forage bi ci biir liggéey boobu ñu doon wax itam am nañ entretien boo xam ne dañ koy def par quinze jours boo xam ne fukki fan ak juróom yu am dañuy def benn opération ci jumaa ji xool fekkente ni pënd la ñu dindi pënd bi bépp bu doogoo bu ñu fa ñaari fan bu ñu fa dee def ñett fan bu ñu fa dee dañ ko koy def jeex bu fekkee lamp yi lañu moo moo tilim ñu war koo raxas noonu lañ koy bu fekkente ne lu mën a doon rek waaye fukki fan ak juróom nekk daal dana am benn opération boo xam ne dañ koy def entretien boobu tam dañ ciy togg añ comme ni ñuy toggee añ ajjuma moom itam liggéey boo am solo la fi may daaneele nag ginnaaw cant gi ak ngërëm yi ak yi nga xam ne sëñ Ablaye wax na ko tudd na ko léegi te muy yoo xam ne yu mun ñàkk ñàkkale ci liggéey bi muy moo xam muy centre de formation bi ndax ku koo xam ne waxtu wu yaa ngi formé te jumaa ji ngay dajale nit ñi di fi ngay fi leen di forme ak di wax ak ñoom mbooloo maa ngi dox ak dem ak a dikk di la ruube léeg-léeg loolu it na ko bëggee xëy na doo ko ni mën a amee kon barab la boo xam ne bu farataal la oto ndox moom kenn waxatut ak farataam ci yoon oto mbalit itam kenn waxatut ak farataam dëgg la Sonacet mi nga xam ne moo tuddoon UGC mi ngi ñi ngi def liñ man waxtu bu ne ñu ngi fiy andi ay box ñu ngi indi ay kees eh, eh, ñu ngi def lépp waaye nag ndimbal daf caa war a fekk loxol boroom sonn nañ lool ci barab bi ndax barab bi dafa bari te bëgguñu dara taq bi te bés bi set ñu ñu buub moo tax ñu ngi def liñ man jàmbaar lañ lool itteel jumaa ji itteel na leen lool ak ko wër waaye buñ sañoon nag jàppale leen ci ndax loolu it mooy li jaadu bàyyee rek ci yaakaar ndimbal saa bu ndimbal la jeexee bu nekkee projet la boo xamante ni daa am fu mu tàmbalee am fu mu yem saa bu jeexee rek ñu fi dàppale waat jalu euh, waaw boobu xamoon nag noonu la demee wala nen wala neneen la demee mi ngi fi di la di la jàppale waaye amal sa yëfi bopp ci wet gi yoo xam ne day ànd ak moom liggéey bi Euh, ci mujj gi nag ñu may wax loo xam ne moom lu mbirum loo xam ne xëy na ci la bokk ci daayira Moukhaddamatoul Khidma la bokk waaye bokkul ci Moukhaddamatoul Khidma ci sunu kilifa gii jiite Moukhaddamatoul Khidma ci la jëm barab bii ñu toog bii ñu toog tey jii man mii ak ñu bari ci ñu nekk sama ginnaaw fi la ñu jàngee xam-xam mu nekkoon ak garabu maa gu nekk fii ak weranda ak tabaxum ñaari néeg bu nekkoon fii bu am werandaay ci lañ daan sukk di jàng def naa siñ seex mi xam na ko ba boobaa ak léegi bañ bañ fi tàmbalee jàng ak léegi juróom fukki at yi mat na walla boog la cay manqué benn at lay doon wala ñaari at bis bu yàlla sàkk lu mu néew néew néew téeméeri nit danañ fi xëy si jàng fi xam-xam di dem bi mu demee bay defar kër gi tam boroomu ngeboot la boromu njaboot la fii ñu nekk ni ngi tey jii mënoon naa doon ay néeg ay ndaw a ngi fii ci kër gi yoo xam ne soxla nañ ay néeg yu ñu dëkk waaye fii ñu nekk nii daf koo def muy daara yoo xam ne ñuy jàng xam-xam bés bu si biir jàng mu am yitte nag yoo xam ne am na ko te du ko wax ko waaye noonu nag ñu xalaat ne ñoo ko war a jàppale muy tabax jeneen daara ju mag joo xam ne itam ngir ngir ñiy jàng xam-xam la ñu di ko def fii ci yoonu Daaru Rahman moom it ma ngay sori ñaar yépp nag courant bi metti na ci moom diis na ñu bëggoon ay panneaux solaires yoo xam ne da koy jàppale ci barab bi jàppale ko ca barab boobee panneaux solaires yooyu nag laaju ñu ne dañuy dajale xaalis laaju ñu ne dañuy def nangam ay panneaux solaires lañ soxla ak solaire boo xam ne ni day takk ñu jàppalee ko ci daara ji ndax koo xam ne kat lim man lépp mi ngi koy def ci liggéey bii nu seq lu mu am itam mu ngi ko ci def ñu yëg soxlaam seetaan kook moom ba lépp sotti itam jàpp naa ne loolu itam nekkul lu rafet ci noonu loolu moom lii moom du du luñ ma yónni ci turu daayira ma xam ne ma di ko wax de lu ma yëg la lu ñu yëg la loo xam ne nun ñun ñi nga xam ne ñoo bokk bokk nañ ci daayira mu xaddimatul xidma tey ay dongam yu jàngee ci moom ñoo xalaat ne loolu lu ñu war la ñu war ko koo defal ngir yëg nañ ne charge si gis na metti na te fayum courant bi des na te lépp mosul a taxaw ni nit ku muy jàngal danga nga may jox nangam mosul am kenn ku mu ku mu jàngal ku nekk ngir yàlla la la jàngal te ñi mu jàngal boo leen doon natt léegi ay junni lañ waaw xanaa di rafetlu rek xalaat yi sëriñ maam Balla yi nga xam ne wax na ko wax ci rafet rafet la. mooy ci wàllu communication yi incha allah danañ seet nuñ koy organiser li tax itam demuñu woon Mali ak demuñu woon ci yenn réew yi baree bare demaguñ fa it sëñ Abdou Lahad leeral na ko dafa xëy na dañoo defagu doon programme génn tournée tournée bi fi ma a am sëñ maam Mor moom Cheikh Mouhamadou Mourtada moo ko sàkk woon ci ñu boole woon ko ak sëñ Abdou Lahad mi mu def ak moom boobu moom moo sa nekk tournée officielle boo xam ne daayira Moukhaddamatoul Khidma moo ko def li ci des yëpp xanaa benn yoon de yebal nañ fi sëñ mii ak sëñ Abdoulaye mii ñu dem Amérique teewal te booba it ab invitation la woon bu ñu invité woon Moukhaddamatoul Khidma ñu yebal leen ñoom ñu dem teewal ko fa bañ fa demee falañ ca lañ samp fondation bii nga xam ne moo moo moo koy dox ba nekk nii xëy na xalaat bu rafet la boo xam ne danañ ci daje waxtaan ci xool nu ñuy mën a def ba donte dañu koy tegalee pare ay sax at mii ñu def benn tournée européen beneen bi dañuy def tournée Amérique beneen bi ñu def tournée Afrique wala nu ñu ko mën a defee danañ ci xalaat nu mën a amee rek incha allah ñu jéem koo defe noonu ndax xalaat yu rafet la ñoo ngi sat ñëpp di gërëm ñëpp di balo ak ñëpp di ñaan ñu teewaat fi ni ngeen déwén kenn bañ a manqué wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh,